di ziar bu baax mboolem sëti Serigne Touba yëpp waaye di ziar bu baax mboolem seex Serigne Touba yëpp di ziar bu baax mboolem njabootu mam Cheikh ibrahim Fall Baye Mouridine waaye tamit di santat bu baax ak geureum sun borom di ñaan ci barke Serigne Touba Cheikh ba ci jotay bi yalla nañ ci am ngërëmal mam Cheikh ibrahim Fall ci tew gi nga xamne ne nañ ko fi tay di sant bu baax mboolem ñi nga xamne ñi ngi top ci waxtu wi sa bu talata jotté seen jotay bi di jës bu murit ñu ciy topp njàngale Cheikh ibrahim Fall Baye Mouridine tey nag di sant bu baax a baax di jégalu ci waxtu yi xëy na bu déggee tàmbali te xam ne mbirum machine rek eh, moo demee noonu waaye di jégalu bu baax mbokk yi nga xam ne boobu ba léegi dañuy bàyyi xel waaye dañuy taaxeerlu ci seen jotaay bi di jës bu murit ñu ciy waxtaane maam Cheikh Ibrahima Fall eh, ak i jaar-jaaram waaye tamit maam Cheikh ak mag ñi nga xam ne ñoom la nekkaloon eh, rawatina ñi nga xam ne ñoo ko toppoon jël seen lépp jox ko tey nañu fas yéene waxtaane kenn ci waa këram maam kenn ci njabootam la ñuy wax muy ki nga xam ne mook maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo bokk wayjuru wu góor ak wayjuru wu jigéen muy Serigne Saliou Fall mu daaru xafoor ñu toog nag ak tey ci plateau bi sunu wayjur sunu kilifa Baye Adama sar defe kenn du ko présenté kenn ci jotaayu Jazboul Mouride bi ndax jaar na fi jaarati fi jaarati fi tamit waaye tamit bëggal mbokki taalibe yi tamit ci ki nga xam ne mooy maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridine xam naa duñ guddal eh, dañuy bàyyi sëñ Aline Badara Ndim mu nuyoo ak mbokk yi ñuy seetaan ñu jox Baye Adama saar mu nuyoo ñu daal di nag tàbbi ci waxtaan bi bisimilah sëñ Aline. jërëjëf sëñ Mamadou Ndaw aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammad salallahu taala alihi wa sallam bismillahi rahmaani rahim rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli saddid lisaani nawir janaani safi amaani wa zid baraa'i barki maam Cheikh Ibrahima Fall asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki baaxoo te safoo seen kon émission bi di Jazboul Mouride di ko teewlu seen radio télévision Lam Fall am mbégte dellu siwaat di si ziar bu baax Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xalif général des Mourides ñaanakum yàgg fi loolu te ànd ak wér di ci ziar bu baax Serigne Cheikh Jëmb Fall mi tok jotay maam Cheikh ibrahim Fall ñaanal ko mu yag fi lol tan wër waye di ziar bu baax baax ak ñaanal sunu buntu si imam Cheikh Ibrahim Fall Serigne Cheikh Ngunda Fall ñaanal ko mu yag fi lol tan ànd wër di ziar mbolé mbokki julit ak mbokki talibé serigne Maamu di bégat bu baax kon di tok ak sunu bay sunu wayjur sunu Serigne bay Adama Sarr lepp rek fas yéene kon jëmm ju tedd di mam Saalixu Fall bu Daaru Xafoor ni ñu koy waxee mam Cheikh ibrahim Fall nga xamanteni eh, ni ñu koy waxe mam Cheikh Ibrahima Fall mam salih Fall ak seenub jigen mhm. eh, lepp rek si eh, diggante mam Ahmadou Fall roxe ak mam mhm. Seynabou Ndiaye mhm. di ñaan suñu borom doli seen ngeureum tay defal ñu seenub ngeureum barki mam Cheikh Ibrahima Fall di la ziar bu baax baax seigne Mamour kon fas yéene penco Baye Adama tubarkalla jërëjëf signaline badar ndim la ci nuyo bu am solo bobu kon dañuy dalal Baye adam sar mm. Baye adam nga nuyo ak mbokk ñi setan ñu door a ci waxtan ausu billahi mina seytaan rajim <clears throat> bismillahi rahmaani rahim salli bi taslimin ala xayni nayim wa seydil kawni li bas nayim wa ab loo ma taxtaaru la woon la dayka innakal maxtaaru sali ala baali xuróoyil aqi ma salaami xaayilil aqi barke borom tubaa mbokki jullit yi mbokki yi ngi leen di siyaaraat di leen balu ak ci mu yéex gee tàmbali gi mm-hmm. ak jataay bi mm-hmm. waaye mbirum maam Saliou moo diisee noonu mm-hmm. eh, di nuyu Cheikh Sidi Mokhtar ni ko sëñ Mamour waxee sëñ Aline Badara di nuyu sëñ Cheikh Jëmb Fall ñaan sa borom yàggal leen fi ak mboolem koo xam ne nii aju nga ci sëriñ Tuubaa mbaa Cheikh Rafal eh, mel ni ko ci ajuwul sax amut ñëpp a ci aju ki nga xam ak ki nga xamut ki nga miin ak ki nga miinut nu am mbégte lool ci jataay bii nu toogaat fii tey. di ko waxtaane muy ñeenteelu yoonu Jazbul Murid. di la sëñ bu baax sëñ Mamour. ak sëñ Aline Badara. ak ki nga xam ne mooy borom kër gi di sëñ Aline Thioune ak mboolem personnel yi fi liggéey. ak mboolem koo xam yaa ngi déglu mhm. rajo. Lamp Fall mhm. émission Lamp Fall. Mhm. Euh, ñu ngi sant ñëpp di leen ci gërëm ndax. Euh, émission Jazbul Murid. ñu koy def ci bisub talaata ji Cheikh Rafal moom moom daa ëpp bañ a dugg. Hmm. waaw kon léegi leen di siyaar baax te leen balu àq di siyaar sama wasila noonu ngay waxee sëñ hmm. Alioune Badara Ndim wax ne sama bunt ci Cheikh Rafal mu jën ci Angonda. Hmm. te man mii maa ngi siyaar sama bunt ci Serigne Touba ak Cheikh Rafal. Eh, di sëriñ Mamor Mbacke moom sëñ Abdou Xor Mbacke Touba Tour. moom sëñ Mourou Mamoun. moom borom gaawaan. si asalaamaaleykum warahmatullah tubaarkalla jërëjëf Baye Adama Sarr nuyoo bi am na solo lool tubaarkalla di beral nuyoo nag akub ziar ak ñaan سرين دام فال خليفة مام ساليو فال بنيان سن بروم دولي كوفي يعقل لون دمائي كوير نزار مبولم جابوت جيب نك فاتو من مام سونو فال جيب مام مام ساليو ان مبولم جابوت مام ساليو جيب نك نزار بحوا دارو خفور فاتو من نم نيب تي جوتاي بام سولو بيين خامنة تي نينكو فسيني وقتاني مام ساليو فال ركي مام شيخ إبراهيم فال بعدما خمنا دني تابتي وقتاني جمال لكني وقتاني نك moom mel na ni du ko naqaree waxtaan la. waaw loolu la. waaye bu ngir rek ñu xam kan mooy maam Salihu Fall. Mm-hmm. waaw sëñ Mamour maam Salihu. Mm-hmm. boo gisee bi ma nuyoo ba noppi ci sëñ Cheikh di Muxtaar ak maam Cheikh Jëmb. Mm-hmm. masalan naar bi dañ koo jox laax ne ko lekkal. mu tàmbalee ca kaw. ñu ko naar kenn du tàmbalee lool ak lekk mu ne des du fare kaw. des du fare kaw waaw. maanaam day xaw day war a ni ci kaw laay tàmbalee lekk li ci suuf kon mooy li tax ñu jëkke ñooñu ki moom émission bi moom waxtaan wi muy maam Saliou te sëñ daam Saliou nekkal ko fi euh, soxna jëgg Fall di kenn ci njabootu maam Saliou am lu ci sëñ Blaat seere woon waaw euh, soxna waaw soxna jëgg yow euh, yaay caatu maam Saliou ñu ko waaw juróom-ñett fukk at ak juróom. Mhm. la ko maam Saliou am. suñu laa ne lu naqari nit ci cat day cata ko ko def. Mhm. wallaahi lenn lu mu doon cat laa ca gën a ñaw. Mhm. kon yow mi mu jël si maam Saliou yaay catul maam Saliou. kon ku muy góor ñi bàyyi la daa xamul li muy def. waaw. moom soxna Fall jëgg moom soxna Fall jëgg. Mm. loolu yaakaar ci góor bu sukk ak raam boo ko sukkee ci moom am loola. Hmm? Mm. moom soxna Fall jëgg. ñu ngi nuy doomam sëñ Aline Badara Baro mm-hmm. ndeysaan xam naa gisee gi bëriwul mm-hmm. waaye dégg naa ko mu dégg na mi ngi topp jotaay bi sax waaw te jotaay yi ñu def ci Daaru Xafoor yëpp ci kaw état sam boobee lañ ko defee mm-hmm. kon ñu ngi koy ñaanal yàlla dolli ko ngërëm ak maamam loolee nag soo gisee jamono di si fii ñu mel ni dañoo mujj mujj ko waxtaane kenn ku ne deng nga ñu di ko waxtaane mhm. tante yeeg baas yeeg rajo yi mhm. mel ni mam salu gaay da cee woor <coughs> te bu woon moom bàmba ji du yëg si fii mhm. mm. xam naa du neex a dégg ci ñeneen koo xay sa dégg baaxut mbaa sa dégg soriwut waaye bu woon mam salu bàmba ji duy gaaw a yëg si fii mbaa boog du sosu leeral ko waaw dinaa ko leeral xam nga Cheikh Fall dañu tënk mbaam borom tinki mbaam borom loolu waxi kajoor la tënk mbaam borom tinki mbaam borom ndax ki tënk mbaamam wutal ko moo xam ne gi nga ko awale ak ni nga ko tënki buum gi nga ko tënki mhm. soo ca bëggee am aw yoon saf ci say ngaax mu yóbbul la mhm. demal ca borom mu tinki la mbaam mi jox la mbaam mi lu la neex saf ci ngaax yi mhm. waaw hmm. loolu mooy maam Saliou moom a Rafaal ñoo bokk lépp. Mhm. ci ndey ak ci baay. mu far roqee ak moom seen bu njaay mhm. seen nijaay mooy Demba Njare. seen doomi nijaay mooy seen Dawru Asan. Mhm. mi Sëriñ Tuubaa noonu lu ko way ëppalee ci yàlla coobare yàlla waaye du dàq fàggu du dàq jaamu. seen nijaay. te ndey ca la. ndax Cheikh Rafaal dañ ku jaay perte sa yaay lekk sa bénéfice. kon maam Seynou bu jaay lekk bénéfice Cheikh Rafaal. waaye daa fekk koo xam ne moom itam yaayam lekkul bénéfice muy maam jaar ak sëñ Tuubaa maam Mor Jaara li tax ma ne la su fekkante ne du maam saliw Bamba ji du yëg si fii wala du sosu maam saliw gis na sëñ Tuubaa ñetti at door ko wax ne Serafal kaay wëri ki ma gis ndax su ma la fa jiitoo yilif la te du ma gëm a yilif saa mag. allahu akbar. daal kon moo tax mu woon Saliou du gone. waaw moo tax mu ne Saliou gone Saliou du gone jooju sax maam maam Saliou wax na ko. Hmm. dégg nga Njaga Jóob nettali na ci sëñ Tayba. Hmm. ak sëñ ma ko defaal. Hmm. borom tawa. sëñ ba daa ñëw ci maam Saliou ni ko. biig de jinne yëpp dañ doon juuxoo ko jooy. am na ku ma ci laaj sax mu ne sama ruusi moo faatu. maam sa ni ma ñu ko tuddee moo faatu. ma ko tuddee moo faatu. mu mag ma. waaw mu mu mag ma ka ko tuddee. Mhm. moo faatu. <laughs> ca yooyu de. sëñ Taïba ne ko ma defar ne woon ka tuubi woon ca Badar la mun ko déedéet. ka tuubi woon ca Badar ka mu tuubaloon ab taawam la tuddee maam sama rosin moomu. <laughs> sama rosin mooy kan moom. sama rosin jéem la woon sam la xaar mu liggéey téere bi naa baroot. bi yaayin wa yaa yooyin wa yaa xayre baarixin wa yaa man lanaa larsaaxu min juudi inamat waaye euh, jabalu nuuru fa la jébbaloo fa la xul wa iyee wàcc dem naa ci doj dem ci doj woowu ci ba adama <laughs> ba mu fukkee moom sam la xaa moomu mm-hmm. daa fab siin su sinus nastainu ak mi ak miimu alhamdu ak raak siraata ak eh, siin nastaynu ak miimuk alhamdu ak xaakubeeru ihdina ak raak siraata ak wala laa waaw ga ak siraata mustaqima siin sa moom la boole muy samaaroon siin Hmm? mam Saliou hmm. ni ko ah kooku moom faatugul waaye kii faatu nag faatu na ci róom juróom benn junni at ak juróomi téeméer ak ñeent fukk juróom làq na ko làq na ko door a faatu waaye ki ko tudde moom faatugul loolu la gaa yi indiwut nag moo tax ñu ni sama ruusi faatu na te ko ndaw kaa faatu waaye ku mag ka faatu ku ndaw ki moo am juróom benn junni at ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom ku ndaw kaa am loolu ku ndaw kaa am loolu sëñ tay ba ne ko moo mm-hmm. sëñ ma Codé. ne ko Codé xanaa moom mag la. mu ne ko mag la de. sëñ maam Saliou ne ko du mag ndax maa ko mag. déggoo ma de. du mag ndax maa ko mag. waaw maam Saliou ne mhm. di wax mag la du mag ndax maa ko mag. kon bu Seera Fall ne du gune kon moo mag mag ñi. <laughs> maam Saliou moo kon mu gis ko ñetti at. waaw. Mhm. mu gis sëñ Tuubaa ñetti at door ñëw ci sëñ Tuubaa Cheikh Rafal ni ko gaa yi seeti ki ba gis su ma la fa jiitu jox ko saa bopp yilif la te bëgguma laa yilif te sunu askan wi toppante la baax hmm. te fukki maam ñaar ñoo jaar diggante maam Saliou ak Cheikh Rafal fukki maam ñaar jaar diggante seen diggante ak Omar bon Xattaab hmm. yooyu jamono maam Saliou di ci xirtal Cheikh Rafal ci sëñ Tuubaa teewaay jëlee. Amar moo mottali ñeent fukki bi. Hmm. maam Saliou woo si maam Cheikh ni ko demal seeti suñu waa ji bi mu ko gisee moom mottali ñeent fukk sëñ Tuubaa Bàmba ji door a taxaw waaw ku ñu la ne moo jëkk a jox sëñ Tuubaa boppam kun soxna Fatou Issa yaayu maam Thierno ci àdduna ci li ñuy dox waxul lu mu xam waaw waaye fa njëbbal ma xewam mu ne su ko nettali ci gaañ yi ndax Cheikh Fall ne ba ma koy def mbaaruñu asama lal tay ñu suuf binduñu Adama ak Awa amul basa doom juddu rekk màggut loolu la wax te maam sol ne moom ak gaa

mun ko ñëw ca mun ko fab naa saa ci mu kaay jox la maa ngi dem. Euh, euh, euh, mu ko sa kanam bi nga jublu ak ginnaaw bi nga bàyyi ko. Mhm. dara du fi yàqu àdduna ak alaxira mhm. soo yeggee ndam loo am. Mhm. keneen du am ndam la ko kawe ci kaw suuf. te la ngay wuti lañu la koy jaayee. fanweer at a yett lañ lay tuddal. waaye xaatam man teel ci ñetti at. ñetti at ya du mat ñaari at nga koy liggéey. ak juróom benn weer. nga jël ndamul kër sëñ ku tudd yàlla tudd Rasulullaay ku tudd sëñ Bàmba tudd la. maam Saliou maam Saliou wax loolu Cheikh Fall ni ko maa ngi dem. Cheikh sëñ maam Saliou godd. ndeysaan. yendoo doo fanaane ko. Mhm. fu laajte ko fa. Mhm. am na sax ñu mooy nett ñu dégg ñuy nett la ñu ni mhm. da koo seet ci mbiri làmb yi Cheikh Rafal mosul dugg mhm. dugg làmb seet ko ci sàmme nag yi Cheikh Rafal mosul dugg ci loolu mosul yaxantu di tàmm mosul commerce ci ba ni mu gisee Serigne Touba ñu xaatamante la ñu xaatamante waaye fekk na sëñ maam Saliou moom bi muy wax ci yetti at yooyu jox na Cheikh boppam ndax Cheikh maam Saliou mustam kër musta tool musta am musta amum xëy musta denc ñaar fukk ba suba lu mu yow da koy jox Cheikh dikk def jaloog nee na te ku faatu ci ginnaaw Cheikh mu yóbbu àjjana ku wopp mu faj la ku jaaxle mu dindi jaaxle ga mhm. ku ñàkk mu may la mhm. lu bëgg a gaare yoon mu gaare la mhm. loolu bind la ci daaru xamoor tegal foofu ñu dem te ñëw ok siñaarin batara da am na fu mu toll de waaw fu mu toll noonu dama bëgg ñu daw rési sax dellusiwaat waaw bu fekkee waa rési jàpp na ñu daw dellusiwaat ànd ak kenn ci njabootu maam Saliou mu waa sëñ ab sëñ Badara Baro mu am nu leeral ci maam Saliou ñu su fekkee ne resi jàpp nañu dellu daaru xafoor te dellusiwaat ci jotaay bi bismillah Fall nag mook Cheikh Ibrahima Fall ñoo bokk woy juru góor ak woy juru jigéen bokk ak maam Assu Diop woy juru jigéen maam Assu Diop mooy maami sëñ Abdou Mbacke Mbar mi bàyyi sëñ Cheikh Abi moom soxna Abim sëñ Fallu kon ñooñu la maam Seynabu Njaay am Cheikh ak sëñ saaliwu ba ñu bokkee ndey ak baay it sëñ Saliou mësta të Cheikh mësta jaar fu neexul Cheikh Ibra Cheikh Ibra it mësta def lu mu diisoowul ak sëñ Bamba Cheikh euh, sëñ Saliou te it sëñ Bamba suñ ko seetlee ay mbiram la kenn mënta lijjanti ndax ku ne xam na ni maam Thierno Birahim Mbacke moom la sëñ Bamba gënoon a wóolu ci àdduna bi ba bi muy dem ci géej gi ñaari taaw mi ñoom la moom la leen dénk Cheikh Ibra Fall it mii Saaliwu kenn na tablewul woon ni sëriñ ni ko Cheikh Ibra fonke woon ak ni ko Cheikh Ibra bëgge woon ak ni ko Cheikh Ibra euh, doyloo woon tey jii di bi li waral bisub maam Thierno dajeeg bisub sëñ Saaliwu moo tax ñu xam ne sëñ Tuubaa kenn xamul mbiram ndax Cheikh Ibra ak sëñ Saliou Cheikh Ibra ak sëñ Bamba juboo noonu ba lépp lu nuy def soo ko seetloo bu rek ci yoon lay tegu ca dañ yoon su amul pax amul dëkk amul lu leneen lu dox ba yàgg-yàgg su yoboo nga jaar ca di nga yegg kon loolu lañu nekk tey jii di sant sëñ Saliou ci dëkk bii nga xam ni moo ko goral boppam sancal ko boppam ni ku bëggi tool wutil feneen foo dëkk ku bëggub dëkk waaye ñëwal toog kon daaru xafoor loolooy bi mu koy ñëw di gorsi seen soxnaam su naan maam Binta Loum képp la fi àndaloon ngor dëkk bi képp kuy njabootuk Serigne Touba ku nekk ñëw na fii ba ci sëñ Modou Moussa Mbacké bi ko sëñ Modou Xabbaan joxe fii ci dende yi tabaxu tuyil ba sëñ Saali ko doon yóbbu ko Daaru Naim kon dëkk bi yàgg na. kàlla jërëjëf sëñ Badara Baro moom tubarkàlla moom itam di ko xam ne dégg li mu wax rek nee na daaru xafoor moom fële lépp ne. boo ko maam Saliou di sànc soxnaam soosu la fa àndaloon kon mu mel ne maam Saliou ni ko bàyyi dama waxee. yàgg naa yàgg naa wéet yàgg naa wéetal boromam. surtout ci àll boobu nga xam ne mooy daaru xafoor waaye tamit di ko ñaanal bu baax a baax sëñ Badara muy doole wàllu courant moo demee noonu. Eh, di jéglu bu baax a baax eh, mu mel ne yaa ngi woon ci. ndax ndax ndax mhm. bàyyi dafa mel ni li ñu dégg. Mhm. nga nga wax ñu ko si maam mhm. ndax xanaa looloo waraloon ñu ko doon wax ni mooy docteuru l'islam. waaw xam nga docteuru l'islam bi. fii ci àdduna la ko tuddi nii nit ñi fii lañ ko xamee. waaye ñi ànd namu ñoom Badar. Badar waaw. ni maam Saliou. ak yonte yàlla Moussa ak Esa. ñoo ci dàq na faj. Badar waaw sih anjir setet itu kon de badar cheikh lu bari won fan jabot waaw bay mbay si ñang mom su mom cierno ibrahim mhm. dafa wax ne bu nu mësa dem aras mhm. ñi réunion di waxtaan mhm. wal yu bay ko aduna dañu melni doñu glace duñu yëngutu bal wal yu bay ko barsak aljana dañuy rumbu rumbu ni ni ni ni way bo mam sali moy moy chef allah akbar fu ñu faje ba mu tëx maam Sadio bu ñëwee loolu sotti yegg na ci sax ba far ku ñu rey ba dar su su ñëwee bu la sëqee bu la yëlëbee doo dee ci bis bi doo ci dee tey maam Saliou hmm? waaw maam Saliou mhm. daal ñëw daaru xafoor comme noonu ko sëñ Bada Bara waxee mhm. lépp ñëw yemb fa ba tiwil moomu mu roñi ko déndey yóbbu ko euh, fële daaru nañ Hmm? waaye ku doomi sëñ Tuubaa yëpp ñëw daru xafoor hmm? ba sëñ Blaat man toog naa mu toog nit toog mu ne ko man de daru xafoor laa bëgg na xam fu mu féete sëñ Blaat ne ko defoo loo xam de sëñ loo xam daru xafoor kenn waru compliqué aduna allahu sa oto ba yegg nga sumi say daal dem ba ca doon bent ga ak Dakar ga nga duggal sa oto dem hmm. xanaa dëkk boobu xamul ni day faj aajo joo xëy docteur tële na ko bu xaama tële ko waaw daru xafoor ba noppi day far bàkkaar ba doo dem sawara demal demal daaru xamul laat maa toog mu digal nit loolu daaru xamul cey waji maam Saliou liggéey na fa liggéey boo xëy kenn liggéeyaatugu ko ci jamono kenn hmm? waaw ñetti weer yi daaru xafoor mhm. fukki fan yu jëkk yi mhm. fukki junneeg ñaar ak ñeenti téeméer lay liggéey par bis liggéey waaw bis bis bi laa ramaa rey hmm. bi matee fukki fan muy cent vingt quatre mille basmala <laughs> beneen weer bi. Hmm. mu liggéey hmm. fukki junne ñaar. ak hmm. ñeenti téeméer. fukki fan yi muy cent vingt quatre mille asbuna laa wu neex ma looki. liggéey maanaam di ko laay wax liggéey. mooy liggéey rek. ndax bu dem toolal yooyu Cheikh Rafaal ne du liggéey. <coughs> loolu mooy liggéey. téeméer ñetteelu weer ñetteelu fukki fan muy weer. mu mu liggéey bés bu ne fukki junne ñaar fukki fan yi di cent vingt-quatre milliards yi yàq yoomu moom Saliou liggéey loolu ci daal ko fa du ko fi dugg seeram araab sawar ku bàyyi koo pen soowu jant ak loo mën a juróom ku la mën a juróom loo mën a doon boo xusee ci biir dëkk bi jublu Touba di jullit ma far say bàkkaar boo dem yow di kàccor nar Touba la bon ma ma ma dóor la bomb nga jaaxaan allahu akbar kon kay sécurité la woon mooy moom mooy sécurité yoonu murit c'est moom Saliou boo dégg ñu Baye Fall daa bëri bëtin mhm. sëñ Cheikh Fall Baye góor ni Baye kër Cheikh Rafal kër jinne la kenn du fi xool ñaari bët mhm. da ngay piis benn bi njëkk soxla nga ko ëllëg ndax boo ne bisimilah boo ne lii lu mu doo ak këy lees koy defee mhm. yàqu allahu akbar moom Saliou Fall moo garanti loolu moom Saliou Fall moo maam Cheikh Fall ba ndar ci kër gu Cheikh Fall sanc ndar maam Cheikh woo fu guddi Cheikh Fall doon faa ñëw. kay dégg naa ba ci Màkka looy looy. ba Màkka ak. Mhm. kon moom moo doon léemu. ak. yenn mhm. dëkkuwaay Cheikh jaaraat. Mhm. njar bala ñàkk. déggal nu ñu ko waxeeti njëkkër ma jéeg. fu mu fi sanc maam Cheikh woo fay jiitu ñun fukki guddi. bu nee bisimilah Cheikh Fall ñëw bu nee fii du dëkk Cheikh Fall jàll. <laughs> waaw am na ci dëkk boo xam ne Cheikh Rafal da koo sanc mm-hmm. ni maam Saliou dem fa mm-hmm. maam Saliou dem fa kam fa fekk ne ko fii mënu ma fay jóg bi yàlla mooñ suuf seeg asamaan fi la ma bàyyi àndaale na ma ak ñoom hmm? maam Saliou ne ko sag ñàkk jóg di leen rek lay doon mm-hmm. Cheikh Rafal ni bëgguma ko waaye su ko bëggee di fi jóg allah akbar ak moom fi jógee nag waaye wuy sama ndey jinne ja moom ñëpp a ko dégg ba <laughs> ba kooku <laughs> maam Saliou moom boole ko defar góor yàlla yoo xam ni. Mhm. doy nañu sëkk jamono. sëñ Taïba ñu ngi di firnde sëñ ñoom ñoomu ak sëñ ma Codé Fall. Mhm. doy nañu sëkk ci. Mhm. ate jamono. sëñ Gumba Sarr. ak sëñ Gumba Sarr. cee waa ji de. <laughs> bàyyi sëñ Bilal Sarr. waaw. doy nañu sëkk. waxuma la doomam yii nga xay ñoo fi ñoom la fi am. koy dégg na amutoon gone. déedéet. sëñ Assane Awa Diakhaté. sëñ Mourou Saliou sëñ Mourou Mam Fall ak sëñ Assane Awa Diakhaté ak. <laughs> sëñ Cheikh Fall yàlla bawal ak ba ci sëñ Dame mii. ci wàllu adduna ak àllaaxira la mën a àtte ba noppi ni gumm nag. amul taalibe yorob yar. tey buur ca waalo. Mhm. di buur ci Kajoor. dégg naa di buur ci Bawal. Hmm? ndax saa si mboo jëkku jug. barag waalo la. Hmm. bu demee Lambaay teeñ la. Mhm. bu demee Kajoor di dameel. Bo nekk doon ci bamba ji nag aw jobasin aw jobasin jobasin dara wu ko kaw dara mënu ko féete ko te kenn attanu ko te lu mu wax nga yegg suuf daam saali woo ngoog sàkkaar maam jëm mii mhm. waaw soxna jëgg soxna faal jëgg mhm. man kër sëñ Asan laa ko xamee mhm. waaw boobu bu sëñ Arsène Mbassé génn bu ñu bu ñu bu ñu sàjjee gajal di géet xiin yi ak pakk yeeg saaj yi mhm. su ma ne kër jëgg baay bu jeefaal mhm. nangam nangam mhm. suñu seen daan kañ ak ree ju neex ji daal ne ah tey ji ak bu ëllëgee yàlla yërëm ne leen dimbali na leen allah akbar sëy wàjj sëy sëy am na bis soxna jëgg nuy waxtaan ba yàgg am ku ñu tudd tudd nit soxna jigéen sama dàll coquette bii coquette bi moo ko sut ci yàlla du ma morom waxuma la waxuma la saa jëmmi bopp te man maay caatu maam Salim dëgg ngoog sëy waa jële loo dàkk ci góor boo demee fekk ko ci moom taalibe gi ngor gi yar bi xam gi yëg gi nit man a terle gi du dese dara te yéene ñëpp jàmm maam jëgg ngoog xam nañ ci dara soxna jëgg faala fekk nañ ko waaw sëy waa jële man defe naa xam naa ko lu ma ëpp fanweeri at hmm? waaw lu lu mu coow li ma sa bari bari lu ñu tëju tëju tëju. Mhm. bu dee tëll ci pénjum sëñ Asan sëñ Asan ngàppi bunt yi lu ñu tere mu tere lekk ko. mais ba Adama am na lu ma bëggoon a laaj tuuti. daaru xafoor dama daan dégg ñu naan dof bu mosaan dugg wér. Hmm. boo mosaan ñëw sax dañuy yeewi dof yi nii ci pénc mi. xam nga daaru. Mhm. dégg naa ci sax nit ñi naan. Mhm. maam Saliou bind téere maam Saliou maam Saliou mosu bind lépp daf téere. Hmm. déedéet mosu koo sànge sunguf. mu hmm, doon faja dof waaw. ndox bi day ñëw ci kër gi rek di lekk ci cere ji di tëdd ci suuf si di naan ci teen bi bu yàggee nga ni cocc teenu maam Saliou moom wëlal sul mënul qur'aan maa huwa shifaahu rahmatul lil mu'miniin walaa yasudu saalimiina ilaa xasaara mooy daaru xafóor teen boobu ku ci naan loola dal mu wér jata nga tënk ak yeewa ci yem laa boo taxawee ci ron guy géej binti ñeex ak ak daqaar gi mm-hmm. du mat quinze nga ñibbi da ngay wér ci la boyaandee liy faj aajo yi du téere du saafara du la sang du la tëkkalib téere galeen waxi nopp da ñëw di lekk ci laakeeg cere yi di tëdd ci di jaxasoog dong yi climat yi mbubb yi ni cocc te xanaa bàyyi àdduna boo wéree mu garanti la bu waaw boo baam Saliou ak maam sëñ Saliou Fall moo sëñ Mor ja dañ ni ku mënta faj dof ba noppi du dellu ci mooy yàlla ak tox ak naan ak jëw ak fen ak bàyyi bul da fajati dof ndax boo ko fajee mu dellusiwaat ci naan bàkkaar bu mu def yow lay yow mi ko faj yow lay ñeel. kon da faj dof danse la ma danse la moo tax maam Suhayl dof bu mës a faj. Mhm. far sax da seexal far. maam Suhayl dof bu mës a ñëw fi moom ay bokk nit ku mbagoo ak moom. Mhm. su wéree jébbul dem liggéeyi ca toole. Mhm. bu ñibbi mbooloo ma dafa waxat ni. Baye Mor Ndiaye tomb del ne ne. maam Suhayl Fall ne ne ko. Mor mënu ko faal mënu ko def góor wàllu nu ni geesu yombe ak boy noonu la ma yombe maanaam Baye Tomb ko wax Baye Tomb nee na moom la ko maam Saliou Fall wax te nee na boo man ko waaw fa noonu wut muy Seex Ibra Fall liggéey ba booyaande ma testé ma ba xamun fu ma jëm mu pinti pante ma ba ma gëlëm mu tëxal saay nopp gumbal saay bët gisatuma ku dul Seex Ibra Fall Sëñ Bàmba wutatuma leneen hmm. waaye mu ne ma demal ci dema demal ci maam Saliou Fall mu belende la loolu laa ko mën a waxee pour gune yi mën koo xam <laughs> mu bay tomb wax loolu bay tomb wax loolu ma ne ne ma ñëw ci moom wax saa bopp hmm. mun ma yow looy wutati soo xëyee di dox sa tànk bi boo ko tegee ci géejug ndakaaru te genn nga ci géejug jënd ga su wàll xëyee ba jot sa ci benn jéegu boobu mun ci munu koo jeel fa la Cheikh Rafal yóbbu daa sori waaye man def góor wàll moo moo ma gën a yomb geesu ni mu yomb a goy waaw bay tomb ko loolu xam nga mm-hmm. daal di boo demee tane. ci yoonu cax. Mhm. Moustapha Sow. bàyyam mhm. Cheikh Rafa la ko defar. Mhm. te pël buy màng la woon. Hmm? waaw. day màng ba yàgg rek jinne yi kar ko ndax xam-xam la bari ko jolof la bawoo. ñëw ba tollu diggante cax ak coŋ ak daw xëfal ak ndulo. jinne ji kar ko def màng may ko soxna. bañ ko saaf naa rek ñu maam saliw lijjanti soxna ak bokk yi ñu jublu ci bàyyi mu saw moomu ci tane nga xay ñoom sa far daw ñu gën si sunguf bu def na ñëw rek jëne ji di wal sunguf tel ko ci taatu garab nag demal garab sàngam fa ngay fekk sunguf bu ñëwee dob bi wér mujj na maam non noonu la batale ak ñoom ni leen loolu jéggi naa ko dutuma jàll maam saliw woo moom kon digganteem ak jinne yi xam nga dañ koy tudd lu bari ndax xam nga jinne yi dañuy ay mbindeef ko ñun waaw am na ku ma dégg sax muy wax ni maam Sall dañ ko doon jiñ ay jinne waaye musta yor ay jinne hmm? am nañ ku ma dégg mu wax laal loolu waaye bu ko waxeet fànn gam jaar maam Saliou hmm. dafa daje wut ak jinne hmm. ndax ku ne fa nga bëtt ngay waxe waaw waaye maam Saliou la yaakaar ci jinne toll ni bindee fii ci kaw suuf fay. maa la loolu. ay taalibeem waaw. ci waaw bu gisee daaru xafoor léegi la tàmbali di yàqle ko. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. waaye bu njëkk boo ci génnee juróom-ñaari kër wala juróom-ñett mu doy mu mat. Mm-hmm. te sabab loolu. waaw batin baa fees batin ba daa fees bay tuuru ni àndaar baa fees ba nga mel lu ubbi ab tiwo. jiite dëpp ko ci béton ci bidon quatre litres waaw bu mu tuur ba fu ne ndox mi wala ngaa jëm fa ba ti noonu ci daru ko foor waaw maam Saliou rek la yàlla may doom ju mu jur ngay wàll yu kaamil di déggoo ma de di faj aajo jooxe doo saafara doo bind téere la ko tàmbalee ca taaw ba ba ci kaat ma ba ci sëtëb yii moo Mor Ndiaye tomb dee ne koo ci kaata kaata baatin maam Saliou woowu bàyyi ku ñuy wax Baye Ablaye Ndiir ci Toubatoul mhm. ma nga ndiireen mhm. doom yi ba léegi ñu ngi dund mhm. ñii ngi Kees ñii ngi Dakar ñee nga ndiireen am na ku mu tudd sax maam Saliou Fall maag Ablaye Faye mu ndoorak doom yi Baye Ibrahima Faye ay xarit la ñoom ñaar Baye Ibrahima Faye tudde ko doom muy Ablaye Ablaye Faye bu at bu ñu wootal ko gàmmo bu bëkk dem ci mujj ñu siar waa ndoorang yëpp ak tuba tund ak euh, kër yi ngaan gi ma juddoo ñëpp rek mm-hmm. man ko bàyyi laay mu ne mu ne mu ne faal man ko man de damaa gis da ngaa bëri wërsëg mm-hmm. bari doom mm-hmm. loo jaay mu jar da dàq di gën fee rafet te koo jublu ñoo ne ree mu ne maam maam Sali Fall moo ma def ni ñuy def or moo ma dugal ci ci mbaarum tëgg mi tëgg ma ba ma rafet mu caay ma suy ma garanti ma ba du ma soppi ko fu ma jublu fala ah, daane sama guró pañe guró bii ma tiim di ko jaay maam sali woo ma ci def ku peese sa guró ngoro goo ko takkee du tas ko ci sarax borom dem àjjana allahu ku peese sama guró yëy ko miti tubir du la rey ku peese sama gura nuyoo ko sa baay nu doom yi toll sa ati baay dina ni toll te dina la battaneel barke bu di toll baay bi laay ndir tubaatul te maam Saliou woo ko defar ma ne ko waaw loolu rek la la defal wax def na leen ci baatin mun li ma doon di ñi mu mën a ko wax waaye daa la ko waaye boo ko nettalee te déewuma mhm. nangam nangam mu ngi dunda nelaw na kon mën nga na ko nettali <laughs> acca bisimilah bu ko nit li mu ko tëfaatuma. ma ne ko waaw lu tax. Mhm. mu ni ma man de. Mhm. bi may am doole. Mhm. nit ñi julli Makka. timis. ma julli fajar. Madinatul Munawwara te duñ ma jëkk Sénégal loolu bi may am doole mënoon naa ko. te maam seen woo ma defar. nee na dem naa ba sama kër gi su ma fi ne allah kubar su ma sa damay defal damay surux ba tëtt sa laa bàyyee julli ma toog ku ñëw fi man saali woo ma defar maam saali woo ma defar ku ñëw fi man toog fu litre saw di litre diwtiir ci bitéel damay xam fi nga yem ci yàlla allahu akbar maam saali ma defar maam saali woo moo ko Cheikh Rafal mm. luñu ñu xëy ci àddina mhm. maam sali jox ñaaram Cheikh Rafal loola mustu nuyu Cheikh Rafal loxoy nen ba junni baax mhm. junni la ko daa nuyoo yooyu ñu tuddee woon seen bas waaw ba koppar di am mhm. ñetti téeméeri koppar la daa nuyoo Cheikh Rafal ba dinaar di am fukki junni dinaar la daa mu njëkk a nuyoo Cheikh Rafal ci yoy di cinquante centime ba muy am ñetti douzaine la ci nuyoo Cheikh Rafaal. ñetti douzaine waaw. waaw xeeti xaalis yi mos a ñëw bu ci nekk. ab lim la ci nuyoo Cheikh Rafaal. am na ku sa faatu te ndar ci teel bi Cheikh Rafaal yi. biñ ko robee ba dëpp. ñu ñu dem def lu ñu baaxoo ko def ku faatu. fi daaw ku wut ay nàkk joxe. maam Cheikh daa téet baa ngi mu ne ak ah, xalaas Moussa koy jëkkanteel. Mm-hmm. ñun Saliou muy jëkkante mun ah Saliou muy daal di fakk nguur si bu yóbbu àddina amul saamul ixaab jaaruwul barsax ñëwut ci biir bàmmeel bi mm-hmm. ah dem leen seeti bàmmeel ba ba ñu demee sulli ko gisuñu waa ji maam Saliou di ko fakk yóbbu àddina saan directement maam Saliou wongo tubaarkal Baye Adama Sarr dañuy dellu Rési ànd ak Baye Naar Fall bisimilah te dellu si waat <laughs> tubaarkal la dañ dem Rési ànd ak Baye Naar delluwaat Daaru Xafoor ànd ak Baye Naar Fall kenn la woon ci mag ñi toppoon maam Saliou Fall wax nañ na sax bi fi maam Saliou jógee bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon yóbbu Touba Baye Nar Fall ñu ànd ak moom daaru xafoor te dellusiwaat ci jotaay bi warkal kofa mu ñëw dëkk bu jox ndey ca jandeer mu fekk ko fa sëñ Saliou Fall moom kër ngaal wul kër ngaal kër gu boppam teg ci njaareem teg ci daaru xafoor moo ko sancal boppam ci ndigalu sëñ Touba ci ndigalu sëñ Touba ko sanc ba mu dikkat dafa ne fii kat fi laay mujjee sanc ab dëkk fi laa jóge wuy ji sëñ Tuubaa na ma ko wax na la amee wax na dégg naa it mu wax ni ñun sant yi dëkk ba àggal yëgal sëñ Tuubaa ñëw na sëñ Tuubaa dafa yebal ñu war a si dëkk bi sëñ Massamba Mbàkke ak sëñ naa Abdourahmane Lo ñoom ñoo si dëkk bi ba xam ni ab dëkk la sëñ sëñ naa Abdourahmane Lo sëñ Massamba kon nag joxe tur ñi Seng Masamba daan di ko seng ngoog seng-seng sëñ Abdul Rahmaan ko xafoor ñu daaru xafoor ngoog ñoom ñaar ñoo ko tudd sëñ Masamba Mbàkke ak Abdul Rahmaan ñoo ko ci seng-seng seng sëñ tubaab mo li yónni ci won gis naa itam loo xam ne yi bari bari wu ma gis ku ko ku ko def ku toog ne nangami weer moo ma des ci àdduna ma jóge fi nga di ko ko wax waaw te woon dafa doon sëñ Mor Anta doomam la moom laa tarbiya dafa doon doom di jubóog moom lool di borom xam-xam sariha lool di jaamu yàlla bu baax a baax doy ko ci lépp mu daaw xam moom ñu sëñ Mor ku nekk dégg na turam sëñ Mor Anta ku nekk dégg na turam dafa dem fi moom mooy da ko tàggu mënu ko Moodu mënu ko Fall mënu yu baax yi am na ci koo xam ne juróom-ñaari weer moo ko def ci àdduna loolu la ko wax. ah kon loolu Fall doy na waaye moom itam laaj ko da ko gaa yu baax yi am na ci koo xam ne ci juróom-ñaari weer moo ko def si ceeb bi wax ko waaye nag mu dina jural ko ndax dafa amoon ay nag am ci yëkk woo xam ne baax la bu am bu am bay la lool woo xam ne dafa dafa ràññee ko bi ñu bëggee ci teen bi sëñ bi génn ci doxaar bi ndax sëñ moom daf daa génn ci doxaar bi bu waxtu wii ba jant bi so wala ba yore ba digg ba sëg yëkk bi da loxo ba daaj ba dend moom daal di naññ yetti naññ ñu xëy dégg naa ko xam naa ko ñi ñi taw moom dégg wax ji waaye xam ñu xam ku xam nañ wax ñoom ndax moom daf daal jekk ba yàgg mu wax ak ñeneen ñi ko miin ñëpp dañuy def tekk rek bàyyi ko mu wax bàggal bu mu ne mun waaw xam ngeen lu yëkk wax ñu ko da wax ni juróom-ñaari at juróom-ñaari bi moom a def waaye fekk na xam naa ko wo boobu mu ko waxee ci njël bienu koor la ko wax koor kori diggi tabaski tam xarit diggi gàmmu ñett fa ne gàmmu ci la wàccu liggéey amul juróom ñaari weer na mu ko waxee woon ëpp yeesu lii la wàccu ci biir kër waaw ci biir kër gii waaw foofu moo néegam foofu moo doon néegam fa waaw ah, mu foofu muy néegam foofee la wàccee liggéey bayti boobee la eh, jërëjëf bàyyi Nar Fall moom jàmbaar la trop mi ngi foofu ci Daaru Xafoor eh, bokk ci mag ñi nga xam ne dañoo toppoon maam Salihu Fall yàlla na ko fi suñu borom doole yàggal lool te mooy ko ak wér waaye bokk tamit nag ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ndax itam eh, defe naa boo demee ci ay maam ñu ngi bokk njabi kon ku jege Cheikh Ibrahima la ci bokk waaye tamit mu jël lépp topp maam. maam Salihu moom mi nga xam ne la bokkal lépp di ñaan mu yàgg fi tànd ak wér eh, di ñaan njaboot gi itam ñëpp yàgg fi barki sëñ Tuubaa santaat nañ bu wér a wér a wér bay naar a a la woon ci moom waaye koro daf ñu ko nangul eh, bàyyi dama dégg nga eh, li bay naar wax waaw li day wane ne rek kon ki ñuy waxtaane muy maam Salihu moom ku bëri baatin la woon waaye koo xam ne bokk na si sax mhm. sëñ Mamour mhm. mu ngi naan mu ngi naan Daaru Xafoor mhm. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. ma gis naa mu jegeeg Congo loolu Baye Adama. waaw Congo te Congo Cheikh Atoumane Diop ba fa nekkoon waaw Cheikh Atoumane Diop. Mm-hmm. sëñ Moussa Niang Koll. bàyyi suñ taala a taala ok da koy bés bu guddi gi xaaj Cheikh Rafat jóg fu nag laay wonk mun ko mbaadu dama bés fu metti mun ko déedéet seen kilifa góor yàlla yéen góor yàlla yi seen kilifa daa faatu léegi léegi romb na ma jëm àjjana. Cheikh Ibrahima ko wax Cheikh Fall wax moo yoroon bëskil boobu njaareem ba ba gébb mhm. mun ngaa man man defe woon yow yaay kilifa góor yàlla yi mun ko déedéet romb naa leen yéen atumaan jóob mhm. kilifa romb na fi léegi jóg jëm mhm. moom moo taawloo Cheikh Jóob sëñ Cheikh Jóob mii moom la Cheikh Fall njëkk am ci turandoo ci kaw suuf. Mhm. ak Baye Baye Cheikh Ndaw sa maam. waaw mhm. ah, loolu de Baye Assane Diop moo léegi mooy xalifaam Baye <laughs> loolu sëñ bi wax ci mhm. ndar ji. Euh, xar yooyu juróom-ñaari xar yu Cheikh Fall rend lu woon yëpp ko sëñ Tuubaa Gabon. maam Saliou moo wooyu El Hadj mm. kooku nga dégg ñu dañ koo dekkal te ñu jox ko Cheikh Fall. mu yaayu soxna Faat Fall Wade. mu jur suñ Fallu Fall mi ci géej gi mhm. des ca ca ca gerba mhm. moom mut si taab Alaaji Malik mhm. maam Saliou moo leen wooyi mm. wooyi Seex Fall doomi Seex Mudu Fall sikkim mu maam mu roq Fall mu roqee Fall moo suñ Seex moo suñ mu Mudu Fall roqee mu jur Seex Fall ñoo bokk Biraan Njabe Fall Seex Fall moom moo jur Soade Fall mi ci parcelle ak Ibra Fall mi tàggee ci rajo bi mm-hmm. ak Cheikh Sadibou Fall Cheikh de Calaw Seck waaw Cheikh de Calaw Seck muy seen sëriñ mm-hmm. néew yooyu bañ koy sullil Cheikh bu di ko yóbbu ngumba maam Saliou moo woote gaa yooyu waaw keroog la Cheikh Sadibou wax ni ñetti néew yi di Cheikh Sadibou bi ci ngumba mm-hmm. keroog la wax ni inna rahmatullahi ngi door a wàcc ngumba waaw maam Saliou moo moo moo moo lijjanti loolu Hmm. Ah, moo lijjanti yaay soxna Faat Fall Wade hmm. Cheikh Fall dekkal ko hmm. nee na ca la ko suñ waaw nee na suñ Fall Fall feeñe ci géej gi ci tefes gi Cheikh Fall di jàpp jàppam benn benn maam Saliou téeñ ci Mikaayil yi waaw ni suñ Fall Fall ñëw siyaar ko mun ko demal sa dikk jotagut demal sa dikk jotagut te nii ko ñëwal la moo war a demee ci ger bi mu faatu maam Saliou Fall moo lijjanti loolu. tey maam Saliou. maam Saliou Serap Fall sanc ni ko fooy sanc mu ne du sanc mun ko sancal mun ko sanc naa ci biir sanc. feeg yaa ngi nekk kaw suuf du ma am kër. bi ñëwee ñoom ñaar kenn kër dëkk bu ñu la ne maam ko moom du Kajoor du Bawal du feneen loolu bi ñëwee sëñ ko nit ku ko topp lu mu waddale yaa koy for munoo ñàkk kër demal sanc ma tuddal la ko. mooy li bàyyi naar Fall di ba mu demee ba sànc ko dikk ni sëñ Tuubaa tudd sànc naa ko ndax ci ndigal sëñ Tuubaa la. Mhm. sëñ Tuubaa ni moom sëñ ma Sàmba yaa Abdourahmane Lo demal sàncal ma demal tuddal ma turu dëkku Saliou Fall bi. Mhm. ma sàmba na yow laasan ba amoo bàkkaar. Mhm. Abdourahmane Lo. sunu borom topp la dara toggoo ak sunu borom dara. yaay saa kaggu. maanaam yaay sa bibliothèque. Mhm. Mhm. ndax jaamu nga yàlla ba alburaax wàcc ci sa kanam nga dugal ci sa tànk may la wàccal nga wàcc. te boobu maa nga ci yéen jolof may la sa tànk bi foo ko teg ku ca teg tànkam dem àjjana nga am weer ñetti weer di wër Tuuba ak sa tànkum neen ngir bëgg nit ñi texe. sëñ Dame Abdourahmane Lo kon nag demal daaru xafoor yéen ñaar ngeen tudd ko kii amul bàkkaar yow yàlla topp la dara dem leen ngeen tëdd dëkk ba dégg nga ni ko bàyyi naar waxee. Mhm. bi sëñ bi ñëwee mu sëñ bi doomaan ma sàmba tuddal dëkk bi ndax yaa ma gën a jigéen sëñ Tuubaa ndax yaa rakkam mu ko tudde naa ko daaru sëñ Abdourahmane ne ko teg ci xëfoor kon laa san ba mu tudd daaru mhm. muy sëñ Masamba mhm. bàccant ceeboo mhm. borom may yu bari yi borom kaala gu baax gi borom doom yi tedd yi ah sëñ lu teg ci xëfoor muy dëkk dëggalukaay bàkkaar waxal waxul ko fa dëkk ku fa jaar rek doo tamaam bàkkaar kon nag teggi ko wóoru baadam teggi daaru xafar ku ko def dem nga su sa musiba ndax nit ki moom lu mën a def te ñàkkul bàkkaar musiba dal na ko looy mën a ñàkk ñàkkal bàkkaar looy am bul am bàkkaar maam romb rek romb dugal ci biir rek jàll xamal li maam Saliou waxal fi nekk ak njabootam ku jóge soowu jant ku nekk ku jóge soowu ku nekk mbaa nga jóge Tuubaa loo tilim le boo daaree ko boo jaaree daaru ko far mu ndax ñetti togg yi ma lax bi mu ko fi defee suñu borom ne dafa yónni dafa yónni malayka yi ñu rëdd yéju ndakaaru ba biir Touba mu gis gunóor ji mu ne man de jaan ji tëdd ci yoon yi xuur ci sa dëkk bi gunóor di ci jaar jaaxal man mooy goudron bi ak oto yi. géej googu ba mu ba mu tuddee géej gi ci digg tubaa mhm. booba laala ni tubaa matul juróom-benni kër matul juróom-ñaari moo tax suñu am surtout daan wax ni géej gi ci pénc mi maam Saliou gis ko ma gis ko. Mhm. ab teewoo ba woon na ci ba rëkk sama dënn bii. tiwo ba wote bani rek ci dëndub sali faal suñu dégg sëñ tuwaa góor jaaru fi moom moom mom mom sëñ Abdou loola seere mam daw mom ma sëñ maam saliou fall daaru xafoor daaru xafoor dëkk bu dëkk bu ñuy sagane sàggane bu dëkk bu ñuy sagane yeen naan ko ci sëñ tuwaa ni kuy tëdd sax ni barki daru xafoor la la ni mu yow ak jàmm ngay def hmm. waaw déggoo ma de hmm. dëkk bu ñu la day jëmmee day lakk wala kër gii jinne dafiy jaar mu lakk boo tibbee ci suuf daaru xudóor suy ko ci jinne ji duutu fa lakk dara moo tax nag Baye Adama bëgg naa nga dellu si diggante mag ñu tuddee ay jinne waaw mu ni ñi moo diggante mag jinne bi waaw xam nga nit ñi dañuy wax loo xam nii du leen leer boo gisee may dugal ci saa waxtaan bu ma waxee ba noppi ku ko weddi sa bàyyi ngay weddi maa sab sëriñ mm-hmm. du ma toxale ci gune mm-hmm. du ma toxale ci gune waaw ñi ma la wax ñëpp kenn ku ci gune Baye Tomb du gune waaw Baye Ablaye Ndir ci ci Touba du gune mhm. Baye Cheikh Ndaw du gune mhm. Baye Thierno Sall du gune mhm. Idrissa du gune Baye Mor euh, Mor Ndiaye du gune nga dégg wax bi ca ñoom damaa jaxasoog ñoom ba amatuma fu ma jëm waaw jaxasoog ñoom ba amatuma fu ma jëm laa def maanaam lool ñu naan xat dajal na taatu kat loolu laa def ñëw ma kenn mënatuma koo def ci ndax ku ma sukk fi yow te yëguma yàlla dama lay defam nawle damaa maa yow a rek man ku sukk damay xam ne dama yëg yàlla ci man ci yow. waaw loolu wax naa ko sëñ Saliou Touré Thiès. ci góor yàlla yi nga xam ku toog fi moom yëg yàlla fi taata. da doo gis lu yàlla ci moom ak sëñ Tuubaa. moom Saliou Touré Thiès. nga Xaadim Njaay Kaar bëkk dem bi mu dalalee ñeent ñoom ñu doon waxtaanee si Saliou. dégg nga ma de. waaw muy sooy bu ndooy moomu. ak jatara moomu. ak juuf. ak ña des. ñooñu képp buñ ko sëppan ci kaw jamono. ñeen seet ñu leen kawe nga xëy sëñ Saliou woo mën ci àddina ak alaaxira gën jëm moo ci man parce que ñooñu mën nañoo àtte àddina moom ñu ñu Xaadim Njaay kayaat daal keroog mën nañoo àtte àddina ak alaaxira ñoom Xaadim Njaay ñooñu doy nañu sëkk ci tarixa yi doy nañu sëkk ci diine ji bu ñu demoon Makka ak Madina leen a jiitu julli duñ leen gën a dégg arab mhm. ñoo leen koy gën a dégg sax ñoo leen di dàq alxuraan mhm. ñoo leen gën ku leen yar mhm. ñoo leen gën a maanu gën leen a yaru ëpp leen ak taalibe te ku amutug taalibe amoo diine hmm. waaw ku amutug rek amoo diine ndax taalibe mooy kersa mooy sutura mooy nax ju ku ko amul amoo amoo diine te yi Xaadim Njaay dal keroog doy nañu sëkk ci diine les ñu defal diine ñooñu man nañ ko te sëñ Saaliw woo leen yaa kon sëñ Saaliw man gën moo ñoo gën ci àddina xam nga xamoon xamoon nga ne sëñ Saaliw mooy rabbi bi maa ngi suñu rasaan xat dafa hmm. man lillaahi xat la jaa hmm. déggoo li mu kulee woon bi muy door a toog dani sëñ Tuubaa néew na muy tàggoog mbooloo te jàngul rabbi bi maa ngi suuru am déggoo ma daa di ci njaal benn toogam moom la jëkk a jàng ci xilaafaam ginnaaw moom ne ne sëñ Tuubaa néew na ku muy tàggoon jàngu ko toog ni salaamaaleykum jàng ko kuy sëñ Tuubaa kon moom kon boo wañee saali mhm. juróom-ñeenti araf la mhm. soo waññee rabbi may suur ñu rahmaan ak rehim juróom-ñeenti araf la kon mooma ah kon saali woo ngoo mhm. kon benn saali wu booy gis ci àddina te mënta atte àddina ak àllaaxira amul ah. te borom daaru xafoor firnde la te borom daaru xafoor góog yi li tax mu dakk danse bi dëkk bi li tax mu dëkk danse bunt bi bunt bi nga xay ku fi jóge fa ku daa ku dee daaru ko for ngay jaar kuy dund daaru ko for ngay jaar ku jaaxle fa ngay jaar ku tiit fa ngay jaar ku ñàkk fa ngay jaar ku doon recensement fi ngay jaar ku am fa ngay jaar ku amul dara daaru ko for ngay jaar mooy bunt bi lu ko neex mu bàcc lu ko na lu ko neex mu jàll lu ko naq mu dëpp la kon moom mel na ne yooyee ba léegi jógu fa de de tey la gën a bari mm-hmm. mel na maam Saliou moo sanc dëkk ba tey Saliou yaa nga ne kër goo ci dugg doomam doomam ne fa mm-hmm. ba ci soxna jëkk mm-hmm. ba ca Amadou Baro mii Badara mii Saliou la ndax sëñ Mbàkke mën ne mooy li ci kaas su dee dëgg li ci kafteer bu dee ndax ci lañ ko xelee mel na badara mii képp këram gi ne ci wetu tali bi jéggi doo daawi dara dugg laa la te badara niixul badara mbaa maam maam jëgg mu fàllas la nga jàll kon daaru xafoor mooy tuubaa tuubaa mooy daaru xafoor ndax dugg tuubaa te xafoor duggut dugg tuubaa te duggoo daaru xafoor ku duggut daaru xafoor musiba dal la waaye ba Adama bëggoon naa am foofu maanaam ñooñu nga xam dañ leen di wooyee comme ni signalé waxoon léegi mooy jinne yi xeet yu mel noonu maanaam ñoom euh, fi ne jamono jii nga xam ne tey jii ñu bëri bu ñu leen bu ñu leen dee wér di leen wut ak yu mel noonu te ñoom dañoo Cheikh Fall moom da cee da cee bëri la woon lool daal te mm. ak yi ñooñam te te yëguñu ko woon sax. te fi jamono jii fi ne daanaka ku ko amul da ngay defe ne amoo dara. waaw sëñ mm-hmm. laa bëgg wax loo xam ne mm-hmm. mën naa mën naa waat man. Mm-hmm. koo dégg mu yor course di wër di jinne xamul dara. Hmm? ko dégg mu frang laa jiwu penku di wér di turu jinne laa ni xamul dara doomu adama du moromum jinne ak malaaka hmm? nga ñàkk fayda ba noppi di junni del siwaat ci 15 di wax ak jinne ak malaaka te malaaka ak jinne di garde corps doomu adama wala xadd karam naa bani adama loolu la yàlla wax niwul wala xadd karam naa bani malayka néewul wala xal karam na bànni jinne kon ku ñàkk fayda bay toog di yublu penk di wér di jinne xamoo dara kala jox nga ko di ko wér xamul dara ndax yaara la ciy dugal mhm. ku la gëm mhm. kiraamatay ni boo wane mhm. xaalis ku la xëy te soo wér dee ngir loolu boo xëyee kenn xëy si wula da nga perte sa coonaab bii te doo am dara <laughs> saw yaram di métti nga géttu la ba dof te banque dee la rey du la tàggaleeg buun ak banque ak raf léegi rifli ak mere ku la deful dara ndax dangay ngay defe ku yor kurus gi wax rek gént lu xam da ngay xëy defe waaye danaa xëy ku la romb sooy gane la da nga naan kii damaa xamut lu mu lay xamee nga weesu fi yàlla rasulullah yi dem weesu fi sëñ di wér di jinne xam dara def loolu mbaaru ku xam dara ñoom ñoo lay topp waaye ku xam dara ba am ngërëmal sunu borom ñooy dëkk ni la maa ngi ñun ñi ci jëbul sëb sëñ moo la di campagne ah dañuy moromam loolu yóbbu ci sëñ la la yóbbu ci sëñ sëñ Cheikh Ngounda hmm? yóbbu la ci kan kër Baye Cheikh Ndaw kër Baye Cheikh Ndaw maa ngi fa kay yóbbu ma Daaru Salaam mm-hmm. yóbbu gars yi feneen feneen mm-hmm. loolu ay campagne la wàkki carte dañoo gis yàlla ci ñoom ñu toppale te ñàkk yàlla ñu am yàlla ñoom ñu wut yàlla ci ñoom ku mel noonu jinne yi dikk ni la maa ngi ngay ànd ak ñoom guddi ak bëccëg te duñ la wàññi te di la jariñ te ku la bëgg a wàññi ñu ko mm-hmm. jinne yaa ngoog am de ngeen ànd di liggéeyal yàlla wala nga ànd di liggéeyal yàlla tey nag maa ngi lay wax ñaari tarixa moo am ci jinne ñaari tarixa ku dul jullit ku ne sëñ Tuubaa nga gëm ak Cheikh Rafal. Hmm, si ah, nga jébbalu ak Cheikh Rafal. te ñoo ëpp doomu bu ñu noon bu ñu wàññeen milliard doomu aadama. Mhm. wàññi benn jinne doomu aadama yi jeex. maanaam astafurlah benn milliard jinne. Mhm. nga ni benn aadama doomu aadama benn. Mhm. ni milliard jinne benn doomu aadama yi jeeti jinne yi duñ jeex. jenn jinne junni jinne lay boot. Hmm? déggoo ma de. tenn jinne june jinne junni jinne ngay bor jajjo rek na boor ak kala ak nooru tamti rek morom yi loolu la Moussa ka wax ñaata lañu kon juróom ñaar la suñ ta ànd ak moom ñëw juróom ñaari kuy jinne yooyu fekk fi ñetti kuy jinne ci Touba ñu tànc ko di ko garde kenn mu ñimu ko moom ku mos koo xëy da ngay maraloog yàlla yegg ci yàlla ba yàlla yow ngay moom nga doo leen a ku dul moom boo fa jaaree ñu fàllas la muy waroomu Touba ñett ko doon ñeent ko doon garde jinne yi ba yàlla sosoo ëdd nag alaxe ñoom ñett ñoo ànd foofu ñëw bi suñ taan yeeg fanaan ci bët gi fii mu tëdd la woo convoqué ñu ñëw réunion générale hmm? yàlla may na ma fii ak ruuy ko fi am juróomi minute dootoo dem ko fi yàq mbaa yàqu mbaa dem sawara ku man loolu toogal nu bokk jaameel ku mun ma dëkk loolu suñ taaxu jinne yi ñett yi ni ko man doon li nga wax kenn ko munuma ko munu ko toppal saa joxoñ bi altub gëñi leen salaamaaleykum nag mooy ñay ci séeréer mm-hmm. mu bëgg a fanaan sëñ Tuubaa fettasi ko gëdd ak jël gaarum ba daxun ca ginnaaw Kaolack koo fanaan faatu ñett yi ni ko mën nanoo toog jébbulu tey ànd yow di liggéey mën lu ma meeke Moussa Jëndee lu Ibrahima Pakaaw hmm? ñoom ñoo motu li ñetti juróom ñaar yi sëñ Tuubaa ànd ak jigéen ji muy fukk ñu ngi Tuubaa ñu ngi Tuubaa guy fukki jër ca ginnaaw ca gede mbal Mm-hmm. déggu mel ci sëñ Moussa am sëñ sëñ Moudou Fatou Khari of buy ga mm-hmm. kenn kaa nga nit ñi Moussa jëndilu Moussa jëndilu Moussa kale ko sëñ Tuubaa tuddee mm-hmm. Ibrahima Pakaaw ma ndumbe ma ndumbe war ma ndumbe mekke sëñ kenn koo seen mu yónni jinnitu yaakaaru sëñ Tuubaa du taalibe sëñ Tuubaa ak Cheikh Rafal laa la ni dañoo séddoo bëccëg guddi gi koo ne du ci ci laa ko boole boo dégg mu ni da yónni jinne waaw maa jinne yi noo ànd mm-hmm. suba te jotee ba kaala woo jàng awxaan bu gudd jotee mu naan sàngara te jén ju mu tëkkul mbaa bu subaa bu jénnee jinne jinne bañ waaw jinne yéefar yëpp ñu yaakob suñu toile lañu yaakaar wax naa la lu metti nag mu am sax kay. Mm. déedéet mën naa war loolu ndax man ñoom xam naa ci ñoom alhamdulilah. waaw <laughs> waaw kon maam Saliou a ngi noonu. Ah, maam Saliou day wane ni maam Saliou du du lii ma la wax moom. Mm. lu ma mën a waat la. dëgg la dëgg la waaw sama ruusin mi ñu daa faatu. Mm-hmm. mu ndaw maa faatu. Mm. waaw bëgg dem sama doom laaj na ma ko ma ne ko ba biig faatuwul. Mm-hmm. waaw comme noonu sëñ Mourtala sëñ Tuubaa diw la mujj a waxee mu xanaa ginnaaw bu nu gonelee biir ba noppi. dé dégg yi ku yaakaar sëñ ku di jullit tey jinne sëñ Tuubaa nga yaakaar. keneen mën na laa déw yee. saltige yaa ngi ci. buxaama yaa ci. kumux yaa ngi ci. njuuma yaa ngi ci. kayafi yaa ci. te nit ñi dañoo defe ni kayafi day dëkk ci àll wala mu dëkk ci seen wala ay seen. te di nit ñi ci doomu aadama am nañ ci ñu ñaadam ñaadam dox di bokk yow di macaat te teew fi lañu. Hmm? njuuma lañu ñii jinne ju saay saay lañu. ñoo am na ku leen leen gën a garaaw. Hmm? am na ñu leen gën a garaaw. Hmm. alxuraan dañu suman bukk mun um yoon fahum. waaw laa yatakallamuun. làmmañ wu cat wu ñaw di yàq moo gën a gaaw jinne moo gën a bon. ndax balaa jinne yàq foofu lay jaar. suma mbokkum amu fu mu laaru joona borom xool boo xam lu mu xool mu yàqu mu gën a bon jinne hmm? waaw ah yàlla na yàlla mus leen waaw ci barke wan saraara xal xi war saraara jinne woon ñu delluwaat waaw eh, daaru xaboor ñu delluwaat daaru xaboor ba tey am na lu nu bàyyi naar bëgg a leeral mm-hmm. ñu delluwaat daaru xaboor te dellusiwaat ci jotaay bi lu ñàkk xam naa sax ñu ànd ak mbokki auditeurs yi nga xam ne mm-hmm. ak ñu ngi bàyyi xel ñu dem daaru xaboor te dellusiwaat ci jotaay mbirum mbirum dof mom mbirum rab mom ak jinne wetu boppam gu ko yàlla jagleel ya naa liko ci yalla may dégguma ko ko ci melni mom ndax ra am san aros san aros dang ko di deg de mooy kilifa jinne yi mbaa li ëpp ci jinne yi sëñ Saliou mooy sëriñam sëñ sali Fall mo sëriñ sam aros tan dund ko juróom ñaaraat san aros mhm. tribunal seize heures juróom-ñaari at moo tax waaw juróom-ñaari at loolu nag naa ko jëkk a dégg ci borom benn xam-xam boo xam ne bii du taalib sëñ Saliou waaye borom xam-xam la weddiwu ko weddiwu ma ko it waaye fi mu ko dëgg fi mu ko jëkk a gën a dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bu baax ak sëtub sëñ Tuubaa laax de bu baax du ma wax ko turam nag sama xarit la loolet moo ma wax ni sa bàyyi sari sëñ sari day sam awras moo di sëriñam kooku ci laa ko ci laa ko doon xam-xam na ci maandu na te xam naa fu wér la ko jëlee boo xam ne daal sa gëm àggu ca nee la jox ay sa ay sunga ak saafara bu sa gën àggee da ngay toog rek boo wér dem ki mujjee doon jëwriñam sëñ daam gay bay ci sëñ gay bay ci jii la dëkk yu ñëw si réew mi mën na alxuraan mën na bind lool te sëñ bi dafa daa soxla kuy bind ndax sëñ bi bëriwul lu mu daan bind moom sëñ Saliou ma damaa dem ca tool ba bay doow ndaw dikk ma ñëwu sëñ Saliou ñëwu sëñ bi ma dikk ah ma yow kat ci kër gi nga liggéey tey jox ndékki ma ndékki ba rek mu daal fab bu mag ak day ba jox ma ñoo day bindal ma ko daan ma ko ku mënoon bind mo daal ko bind ci ci tiir bu gàtt daal dik jox na ah, da daa mu góor nga di jef mu yeen bind mi yeen jéem bind mi beeg ah daal alxuraan di bëgg naa ko lool danaa ko jàng mu tu ko mu hmm, tu su sumu ubbee téere bi saar yi dañuy wax ak man aaya di wax ak man saar bu nekk na nangam lay fajj so bu nekk nangam nangam lay fajj ay ba nan so bu rek sangam nangam lay fajj ba xam itu dañu ujub kaamil bi waaw loolu de moom daal sëñ Dame Ngaye ini lah, semua dari na si àll bi boo gisee bala ma bu ma ne lu gën a tuutuut mom ak moom su ma ko defut du ma ñëw ndax su ma su ma ko defut du ma ñëw ndax garab dañ ma garab gu nekk naan nangam laay nangam naa pañ naa ngam soo bay aw sangam naa pañ garab di soobu du ko xam tubaarkal jërëjëf Baye Naar Fall tubaarkal di ko ziar bu di ko doonee ziar bu baax a baax nag di ziar mboolem njaboot njaboot gi yëpp nag waaye tamit fàttewuñ ku ci mel ne soxna Seynabou Thiam Baye Fall mu xam nga mu ngi bàyyi xel jotaay bi di ziar soxna Aminta Fall yaaram maanaam muy madame Lo almadi moom itam mi ngi bàyyi xel jotaay bi soxna Astafal moom itam bokk ci waa Daaru Xafoor mhm. mi ngi fii ci Liberté 6 eh, ñoom dañuy bàyyi xel jotaay bi baax a baax ku ci mel ne soxna maam Jaare Siise moom woote na léegi sax waaye sëñ xaban sëñ xaban Mbàkke moom hmm. Cheikh Mouhamadou Fall ah, waaw waaw mu soxna Adama Fall mu ngi teewlu jabo mu Sërif Asan waaw Jaara Gay hmm. waaw xam nga hmm. ku baax nga noonu moom sëñ xaban mu sëñ Fallu waaw moom dañ koy ziar bu baax a baax moom murit la Baay Faal la mhm. te mhm. Euh, bi rek ak ko ñor ak taalibe yi mhm, waaw ak xasida yi alalam jëpp da ko ci financé ci murit yi jàng xasida di góorgóorlu yambaram taalibe daal la bëggut moom sëñ xabbaan tubaarkal la bàyyi dama su fekkee ne sax am na mbokk yoo xam ne ñu ngi taxaw ci ligne bi 88 628 19 07 su fekkee ne am na mbokk yu bëgg a barkeelu ci jotaay bi ñu xajal leen ñu mën a dugg ñoom itam mën a barkeelu ci jotaay bi 88 628 19 07. ndax ñàkkul ni ñàkkul ni Baye Adama bu nit ñi duggee ba noppi dinañu laalal tuuti si wàccaayu Mame Saliou Fall. waaw tubarkalla 88 628 19 07 su fekkee ne ñu taxaw ci ligne bi. wàccaayu mhm. Mame Saliou. tubarkalla ñu ànd ak ñu delluwaat ci Baye Adama xaar mbokki taalibe yi mhm. bisimilah Baye Adama. na ko na ko waxee. wàccaayu mhm. ci naka. maanaam gannaaw gannaaw gannaaw Serigne Beek Mame Cheikh Ibrahima Fall ba ñu leen. noppee gis si si jamono. Mhm. ndax moom kat dafa mel na sax Cheikh Ibra rafaataloon na ko ñenn ci ay waa këram. waaw ndax mel na ni. Mhm. soxna Saasi Mbodj mi ngay wax. waaw ci Cheikh Ibra ko joxoon. Mhm. mel na ni itam soxna Njaay Njare itam. wax nañ ne yoroon na ko. soxna Awa Jaxate Jóob itam moo ko yor moo ko yoroon ndax mooy wajuru sañ Assane Awa Jaxate waaw te sëñ Assane Awa Jaxate Basiru Awa Jaxate ñoo bokk ndey ñoo bokk ndey eh, Basiru Awa Jaxate Cheikh Ibra ko jur Assane Awa Jaxate moom saali Fall waaw kay xam nga Maam Sall moom toujours lu kéemtaane yi ñu lay wax. bi ñaari mag ñooñu mu daan leen ñettee làqoo. muy sëñ Tuubaa ak Cheikh moo jëkk wax ci àdduna ni bu leen barke dugal ci ñi fab ku sëñ Tuubaa yoroon dugal ko ci kër. ku ko def dem sa moom sëñ bi jëkk ngeen ne trouvé loolu. dañ yéen ñii ñaari mag ñi banu ci àdduna. ku fi sa barke jay mbaa sa daraja. ba nga jël ku sëñ Tuubaa yoroon da nga dem sawara. Eh, tuddee waa Barça. waaw. Mhm. moo tax kenn ñëwu leen woon. ndax bis bu mu njëkkee tàggoo. mooy bi ko sëñ Tuubaa woo mu ànd sëñ Tayba ak sëñ Makonde. am na ku taxaw ci ligne bi. Mhm. bisimilah. mbokk mi bisimilah. retour mel na ne am na ku taxaw ci ligne bi bisimilah ko mhm. dem waaw. dafa ànd ak sëñ Makodde defaal mu tawa mm-hmm. ak sëñ Tayba mm-hmm. ñëw nuyu sëñ Tuubaa njaareem mm-hmm. piste bi piste ram rafle wéy mi cuus na keneen ku taxaw bismillah mbokk mi dafa mel ne déggante wuñ bismillah ñu dellu xam naa jombut dina dellusiwaat waaw Serap Fall ni dégg sëñ Tuubaa saale mu ni faal mu ni ko loo xam ci ràmm beeg rafle beeg ñàkk geeg faatu gu gaaw gi boobu ku faatu sa jabar lay suul am na keneen ku taxaw ci ligne bi ba tey asalaamaaleykum euh, salaamaaleykum salaamaaleykum dafa mel ne ba tey itam kooku déggantewul salaamaaleykum bismillah kon dafa mel ne mu ngi wax waaye yëkkatil kàddu gi salaamaaleykum. maa ngi waaw bisimilah waaw. waaw man la Aymerou Guèye. Eh, tur bi naka la nga ne. Aymerou Guèye. Aymerou waa koy Guèye jaajëf Guèye. waaw dëkk Kër Cheikh Ibra ca Njaareem. ah tubaarkalla tey. Mhm. Eh, mais teewlu waxtaan wi ngeen di waxtaan ci koo xam ne ku mhm. yaatu la. tey. Mhm. maam Saliou Fall. këram gi ci kër Cheikh ci Màkka looy looy. waaw. man nii fa laa jinnee. waajur ci biir kër googu laa dëkkoon. Mhm. yàlla dogal nag maa ngi fii ci Mbuur di fi liggéey. Mhm. sama bàyyi bi nga xam ne mooy sama waajur ci moo moo moo mhm. moo doon sëriñam. ndeysaan tey. sama bàyyi bi nga xam ne moom lañ ma tudde te mu yaay ni nijaay la ci sëñ am Saliou moom mee ngeen di wax. tey. moom itam sëñ Saliou Fall moo doonoon sëriñu. maanaam sëñ boobu ngeen toogal muy waxtaan ci sëñ Saliou. sëñ Saliou yal nañ ko yàlla eh, yal nañ ko sëñ Saliou sàmmalal boppam. amin barke moom Cheikh. ba mu yàgg fi lool ba mën a waxtaan ci sëñ Saliou lu gën a yaatu ba tout temps kii mën a xam kan mooy sëñ Saliou. amin barke Cheikh. ndax sëñ Saliou ku jar a xam la. ndax bu fekkoon ne du du du rakki Cheikh Ibra moom ci boppam rek jëf na loo xamante ne fu Cheikh Ibra toll woon moom mën na faa yegg ndax waxuma lim bokk ak Cheikh Ibra waaye dafa topp ci Cheikh Ibra ba am li mu am suñ saaliwu waxtaanam maanaam fii ma toog di déglu émission bi ci laa woo sëñ sëñ Fallou Fall defe woon na seetaanu émission bi. Mhm. sëñ Saliou Fall mooy taawu sëñ Dame Fall Saliou. Mhm. léegi laa ko woo téléphone. Mhm. seen jataay boobu day jataay boo xamante ne man sama xol da cee seet lool. ndeysaan tubarkaale wax ji bari na waaye daanaka xawma lu may wax. ndeysaan jërëjëf. jërëjëf yal na yàlla guddal seen bopp jërëjëf bi euh, ngeen nekk itam yal na ci yàlla def barke bu ëpp. amiin barke Cheikh Ibrahima amiin. fépp fu télévision di egg ci àdduna bi. Mhm. yal na ko romb. amiin barke Cheikh Ibrahima. barke Cheikh jërëjëf Bey. Eh, sama kër gi ma am ci njaareem nag moo kër Baye Cheikh Ndaw ñoo jàkkaarloo. ah tubaarkàlla tey ñoo bokk dëkk. dañ am di daw sama sama xarit la. Mhm, tubaarkàlla. sëñ Fallou Ndaw sama xarit la sama wëllëre la sama dëkkandoo la sama sëriñ la. ndeysaan jërëjëf. moo tax yow sa émission daanaka du bàyyi dara raw. ndeysaan jërëjëf jërëjëf di ziare waa Mbour gépp nag fàtte wuñ leen taset ñoom ñëpp Thiès ñu ngi bàyyi xel télévision bi. tubaarkal waa Adama waa Medina Fall Kawsara ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar. tubaarkal ñu xaaraat keneen rek ci 88 628 19 07 bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw yëkkatil kàddu gi tuuti. waaw ñu leen di ziar. yëkkatil kàddu gi. ñu leen di ziar jërëjëf. kooku. ñoo dégg lool ci li ngeen tudd seen xabaan Mbacke moom la léegi. Mhm. jërëjëf. da doon ku baax ci ñun daal koo xamante ne nii. suñu mhm. jóg di ko mhm. sant di ko gërëm. ndax loolu nga wax léegi ne ku bëgg taalibe yi la xaside yi. ñu ñëwee moom tax a bëgg seen tubaab ndax moom suñu lépp la. suñu daal mënut mënuñu wax daal ndax sant bi ngeen koy sant ci rajo yi. Mm. tubarkalla dafa mel ne dafa génnaat. Mm. Eh, jërëjëf di xaaraat keneen rek ci 628 19 07 képp koo xam ne rek bëgg na barkeelu ci jotaay bi te jotaay bi maam Saliou Fall la. <laughs> Eh, di ziar baax a baax mboolem ñi nga xam ñu ngi topp am na ci ñooñu sax xam naa ñu ngi woote waaye eh, dugg gi xaw a jafe ci ñoom. Mm-hmm. bisimilah mbokk mi. salaamaaleykum. waaleykum salaam yëkkatil kàddu gi. waaw ah, ñu ngi leen di ziar yal na yàlla nangu ziar bu baax kooku. Cheikh Abdullah dañ koy bismillah allo waaw ñu lay déglu bismillah Cheikh Abdoul Ahad lañ koy wax Cheikh Abdoul Ahad hmm Cheikh Abdoul la wax hmm ñu ziaré jotaay yi yéen ñu fi hmm di waxtaan bi ñu jàpp jana télé télé bi di leen ci di déglu seen waxtaan. ndeysaan tubaarkalla. maam Cheikh Rafal ak Sëñ Saliou Fall. benn lañ. ci. tam ma ngi rafet lañ. ñuy waxtaanee ci ay mbirum maam Cheikh Aliou Fall. ñun moom dañ ciy sawar lool. ndeysaan. ndax ñu koy déglu. surtout kilifa gi toog di wax. boo gis rek xam ne li muy wax daf koy dund te nit nag bi suy wax nga koy déglu gis nga li ndeysaan tubarkalla génn ko wax lam solo waay tubarkalla ñu ngi xaaral beneen keneen ci mbokki taalibe yi wala bokk ñeneen mbokki taalibe yoo xam ne xëy na ñu ngi am yéene ci jotaay bi bisimilah mbokk bi salaamaaleykum waaw bisimilah yëkkatil kàddu gi bisimilah bisimilah waaleykum salaam wàññil wàññil télé bi wàññil télé bi da ngay déglu ci téléphone bi rek te télé di ñaan ngeen yàgg amin barke cheikh ibra sëñ jërëjëf sëñ 88 628 19 bu fekkee ne am nah, na keneen ku taxaw ci ligne bi rek ñu jël ko tubarkal jërëjëf allo waaw bismillah da ngay wàññi télé bi te yokk kàddu gi dañ ni génnaat na dañuy déglu ci téléphone bi rek bañ a bàyyi xel télé bi fekk am na keneen ku taxawaat ci ligne bi daa dama ne gars yi tey am nañ yéen a am maam Salif moom day koo xam ne Salif sëñ bi borom léppam dafa barkeel moo tax ñàkk tàbbi ci jotaayam daa wóorut am na foo tolloon nag mel na ni lu dem tuuti xaaraale mbokki taalibe yi bisimilah am na ku taxaw ci ligne bi salaamaaleykum bisimilah bisimilah bisimilah. mel na ni déggante bi mën na euh, xam naa sax dafa mel ne li ñu des a bëreetul su fekkee ne sëñ Assane mën nañoo teel ligne bi sax ñu ñu ñu wax ba jox Baye Adama fi mu toll mel na ni am na fu mu war a tàbbi bi Baye Adama mm-hmm. Mm-hmm. waaw fi mu doon tàbbi mooy diggante sëñ Taïba ak sëñ Makodde mm-hmm. ak maam Saliou bi ñu fekkee sëñ Tuubaa Njaareem ci bis maam Saliou di tàggoo sëñ bi de ko ne peste bi bari na soxna su faatu sa jëkk rek lay soxla ak yeneen ak yeneen léegi nag lu ci sa liggéey yow mun ko sa ndigal laa ciy déglu sëñ bi ni ko bisimilaay mu daal ni ma ko de gasal ma pax fekk daa gàppuru sukk daal ni sëñ tey ba dama indi ma legetu ndox mu dugg marché du mu jóg jënd fa leget duy ko dox ba mu fees mu ñu taat ci yetu maam saliw ci yetu paxam ñu mm-hmm. gas suñ ma kodde gas ba topp ñu topp mm-hmm. maam Seydou maam Saliou mm-hmm. loolu tubaab naa concentré wu mu concentré wu dawal rawaan beeg alham bi jëkk baag mu ne jëkk ñaari loxo yi ci leket gi ni ko këbëj ci pax mi këdd leket gi mu bëtax mu ni piste ak ñàkk ak banque ak bon ak rafle ak gàtt far ak deegu ñaaw wuubi wuubi waaw piste bi jee wuubi moom baadam wuubi mooy ay ca ca àll ba bu arab la karhan la bokkut ak taw an taw an négocier la karhan par force la wala boog taw an togg la karhan lakk la fest bi jee sippi hmm? hmm? sànni la ko def hmm. loolu sëñ ciiru na ko sëñ ciiru Juuf def na ko suñu blaat ba wagaa ji xewee da ko nuyu bele mu ne ko mooy yow looy xoolee li bàyyee da nga koo mu ne ko bëgg naa koo xam góor ga waaw waga ji nag mag mu aye daal di togg bu gën a xëpp suufu ka ca day xajamal ak toggam te bëgguma saa togg gi xajam te mag ñi ku ne na sax kay ku jikku ca kon su wax ji ñëwee nag kenn ku may nuyu fii dooma tal sax far li ngay joxe day war nga wax wokkatu mhm. daa bëgg mu daal di jeyee mhm. sa ceer yëg jóg laxas kaala gi ci ndigg li ñu mhm. kenn du ma ngaabil maay ngaabil saa bopp waaw waaw daal pax wut këll tiim ko ba mu soob mu ni ci këbëj ndox mi ñi ma feranglaayo la feranglaayo wànglee wàng lii ni ko këbëj ni ko billaay doom lu déggal billaay mbàkke mhm. ku fóotu pétrole taal ndox muy tàkk dootoo fi gis wago dootoo fi gis wagaan ndox muy tàkk moo amul moom mhm. bu dul gaas wàll du enaal mhm. du tàkk waaw maam Seydou def loolu mu daal di ñibbi si nag nekk ci wàccaay nag Cheikh Fall dem sëñ Tuubaa dem sëñ Tuubaa dem ndax sëñ Tuubaa ñettaat la maa bay Cheikh Rafaal. ndeysaan ñu daal di fab waajur sëñ Daam Saaliwu mm-hmm. jox saa si mbóoj faaf saa si mbóoj teg Asan mm-hmm. Awa mm-hmm. Soxna Awa Jaxate teg ca nu ñetteel bi. Soxna Njaay Njare Soxna Njaay Njare mu daal ni saa baaram bi ni maa leen gën a xam ak seeni daraja ak li ngeen di woote ku ci daraja jay nga jub jëllu ba àdduna da nga dee dem sawara waaw man nag lii tax ma def ko ci saa mag ju tëdd ji daf maa wax ne desel naa wogg yàlla ak sëñ Tuubaa kon nag jëlal ñi fi des mu daal di tuddi sëñ Asan Jaxate Awa Jaxate ñu di Cheikh mu tudd maam Saliou mu sëñ daam Saliou mu tudd ko sëñ Abdourahmane Lo daan loolu daan loolu laa doon mottali waaye saa mag ja jiitu na ma fee waaye badamaat bagage bi benn bagage du fanaan allah du laye waaw benn bagage du fanaan àll du laye mm-hmm. ni mm-hmm. ma ko toppoon ci àdduna su àllaaxiraa ni laa koy toppe su bis pay bu yàlla génnee rasulaay génn mm-hmm. rasulaay yàlla ànd ni suñ tax ramu suñ taa joxoñ Cheikh Fall ne ko romb maa ngoog man mii la Cheikh Fall di joxoñ ni ma Saliou gaa kon maam Saliou néexu toog taane ci jamono <laughs> ndax ñuy wax wuñ cee wax wala boog ñi ne wuñ cee wax wala xamuñu liñ ciy wax ndax ñi ko gëstu daa bëriwut ñi ko dund bëriwut mm, mm. waaw mm, ndax daaru ko for moom dégg naa conférence bu ne waaye dégguma gars yi boole ko ci <laughs> te ku ko génn ci conférence yi ak waxtaanu jaloore yoon wi. ku ko génne ku ci génne dara ko fa rek maam Saliou day mel ni sondeel bu amatug mees du tàkk. lii firndeel ak si. tubarkalla bilaay li si laay laay. tubarkalla Baye Adama excellent xam naa dañ lay jox sax tàggatoo rek. su ma defee jox suñu Alioune eh, maa ngi gërëm jataay bi. Mm-hmm. sëñ Cheikh Sidi Mokhtar. Mm-hmm. sëñ Cheikh Jëmbul. sëñ Abdou sëñ Daam Saliwu mm-hmm. ak njabootu maam Saliwu Fall gépp ak doom yi mm-hmm. rawatina taaw bi sëñ Fallu Fall ak sëñ bëkk démb la ma sëñ Asan waaw moom sëñ Daam Saliwu mm-hmm. ñu waxtaan ci lii yéen itam ngir am farlu ci yoonu Jazbul Murid ngir murid yi ñii gune léegi yi xam mag ñi fi ñu tegal seeni tànk ba yegg ci yàlla dañ duma bokkoon di wut yàlla àndandoo ko yéenante ko ku ne di ko wutal su morom te duñu ŋàññante loolu tax ñu teelam yàlla ñoom loolu loolu waral nag yéen ngeen bëgg gune yi door a jóg xam lu ñuy wute yàlla ba am yàlla ba yegg ci yàlla ndax lu waay man am te yëggoo ci yàlla am yàllaa ko gën rek mooy suñu am rek ci àddina lu bari bari loo defe ne baax na am yàllaa ko gën waaw waaw jotaay bi yeesal bi loo si loo si bi yeesal bi bi ma ci duggee damaa yéemu xam nga di jàngale tasoof wala ak taalibe ba noppi ne noo nga ci kaw ne tubaab <laughs> mën daa koo xamut te Cheikh Rafal dana taatu taalibe liif laa mim xulibati róom lañ ci bind róom mm-hmm. am déet mm-hmm. mm-hmm. ginnaaw róom lañ ci bind suñu njëkkikaay danoon fa njëkkikaay yi teg ci róom yi di waxtaane gars yi am yar waaye di jàngale ab yar ba noppi ni jéggi ni ñambi bu ñorut loolu ku ko def moom ka ngay jàngal bu déggut lool du mën a def la muy def looy jàngale da nga cay ne koy jàngal mokk dangay ngay mokk koy jàngal xam-xam da ngay ëpp xam-xam ah bu ko defee kon ñu ngi leen di siyaare sama bosa ngi mokk fi waaw waaw maa ngi ko yëg bu baax ñu ngi leen di siyaare tey ñaanal suñu Alioune Thioune yàlla barkeel liggéey bi te guddul faram ba ni mu ko bëggee mu amee ko ni eh, moo ki ma ak maamam eh, ni ma ko waxee woon léegi itam ñu ngi siyaar suñu bokki taalibe bi yëpp duus këti xasi yéeg yëkkati kati yéeg ñu yor kurus te toog waaye maa ngi leen di dénk itam bu leen kenn jox wër tur turu yàlla waxee day mat mètre ak genn wàlla ñaa la tam yeeg sàmbata njaay tal sam moom du turu yàlla waaw bind sek te seg boo amul barke dara du bind. maa ngi leen dénk loolu. Hmm. nan jaamu te yàlla tax. lu maanaam sunu professeur bu mag bi. Hmm. suñ Muntaxa waaw dañu nan jaamu yàlla liggéeyal ko borom Tuubaa. liggéeyal borom Tuubaa jaamu ko yàlla. Hmm. jaajëf kon nan def noonu. waaw li si dolli ku moo di. xaside yi nun ñu koy jàng nan ko jàng jox sëñ Tuubaa addiyee. li ci sëñ Tuubaa jiñ xamuñu ko ba di ko ragal. li ci sëñ Tuubaa ñoddi xamuñu ko ba di ko ñaan. kon suñ taam mooy fépp ak lépp kon ñoon ko jox addiye toog déglu ko ab jaam du ne ca la ko war mhm. wetu sa nga bay booy mhm. te Cheikh Fall dañ ku ne ci la war mucc ci li la wër yàlla nañ mucc li ñu wër. lan mooy xaaral mucc li ñu wër. <laughs> jërëjëf Baye Adama Sarr tubaarkàlla sëñ <laughs> Aline Badara. waaw santante nañ ko bu baax. Mm. ndax euh, niñ ko ko waxee woon. mu ñu koy defal noonu. maanaam weer wala ñaari weer yu ne. mu mu ñëw baaxee ñu kenn si magu moom baax Ibrahima Fall yi. Mm. te boobu ba léegi yaakaar naa ne mu ngi si bu baax a baax ñun nag li ñu koy ñaanal. mooy yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér mm-hmm. ndax wax dëgg yàlla saa suñ ko gisee rek am ak mbégte bu baax a baax moom Baye mm-hmm. Adama Sarr ñun daal dañ lay ñaanal si doole Maam Cheikh Ibrahima Fall nga yàgg fi lool te ànd ak wér mm-hmm. Baye Adama wax dëgg yàlla bëgg lool lool lool lool di ziar bu baax a baax euh, kon euh, sëñ euh, sëñ Alioune Diop Sarr mi nga àndal ak sëñ Fallou Diop ak sëñ Fallou Diop mii nga àndal wax dëgg yàlla di ziaraale bu baax a baax nag soxna Maguette Fall di sët si Maam Salihu Fall di jàmbaar lool nekk si HLM Paris nee na jëm naa dugg ba sonn waaye li ñuy moo xam ziar bu a baax ak sëñ Fallu moom Baye Ndab Fall ñu ngi koy ziar bu baax a baax bu Daaru Xafoor ak mm-hmm. mboolem waa Daaru Xafoor maa ngi ciy profité di siyaare sama waa quartier bi quartier Maam Jaara nu mm-hmm. nekk ci moomeelu sëñ Cheikh Mbacke borom daa Rahman te mu yaatal nu te dimbali nu mm-hmm. eh, te te te yiir nu di siyaare mboolem quartier ba nag. Mm. de quartier maam jaara ndax damay bañ a tudd kenn bàyyi kenn. ñu defe ne damaa fara kii bàyyi kii te ñëpp. man te di nga mos a am occasion sax tudd ñëpp. incha allah waaw ñu ngi euh, mag ñi nga xëy ñoo fi nekkal sëñ Tuubaa. Mm-hmm. lu mel ni mbakk yu fay. Mm-hmm. Euh, Cheikh Amar. Mm-hmm. xeeti Moudou Mbaye Samb. sëñ Cheikh Sylla xeet yooyu. waaw sëñ si la Baye Fall. moo leen si ak si ak xaadim Ndiaye Tassouf. waaw mhm. ah, di siyaare kasaalika li ma ubbee woon waxtaan wi. Mhm. sëñ si eh, sëñ xaadim Ndiaye Kayar. ak ñeent ñi mu dalante ñu bàyyi ko ci seen saaliwu taxay doon nañu parasante ci Sénégal ñu ngi leen di siyaar sama mhm. géejawaay eh, sama rakk ji ma bàyyi ko muy Cheikh Sarr Mbay Sarr mi ma faraan bëkk dem këram ak Boubou Sarr suñu bokk bàyyi benn bàyyi ak suñu kilifa si Alaaji Àlla Sarr mi ci liggéey te yóbbu woon nu Makka daaw duñ ko fàtte mukk bokkee dem Sëñ Tuubaa. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. am solo xanaa daaneel si waa Njar yi. su mel ni sëñ Maam ja sëñ Abdou Boussa Diar. Mm-hmm. Mm-hmm. ni ki it euh, sëñ Moudami mi mi xalifa bi. yàlla fi yàgg loolu tax na sëñ Isma Dia di leen ziar nag. Euh, mm-hmm. sëñ Massal Dia mi nga xamante ne dafay bawoo. waaw si euh, semaine bii ñu génn rek. di ñaan suñu borom yokk leeram bu baax a baax. moom sëñ Mor Dia sax sëñ sëñ Mor Dia denc na ñaari doomi Cheikh Rafal waaw denc ko waaw door a fabaat jeneen doom ji yët ko ko muy ña doomi doomi doo ab sëtam bokk mhm, waaw mu mu jox ko mu jox ko sëñ Moodu mhm. kon mhm. ñooñu ñoom eh, noonu ko waxee moo ngi leen di jaale te di leen masawu coono wallaay di leen masawu baax sëñ xambaar moom sëñ Fall ni ma ko waxee woon sànq mu ngi lu jotaay bi waaye it eh, di si jeex bu baax soxna Seynabou Thiam ñun Baye Fall yi ndax sànq ndeysaan fexe na ba ñu jokkoo ak sëñ bi sëñ bi ñaan si jotaay bi ni mu ngi koy bàyyi xel waaye soxna Ndeye Fari Gueye Thiam mi nga xamante ni rakk la soxna Seynabou Thiam soxna Mame ni ko waxee sànq moom it soxna Mame Diarra Cissé ñaar euh, si bi ndeysaan euh, di ko safoo bu baax a baax hmm. euh, waaye Baye Talla ñu ngi koy jaaw moom sëñ hmm. Moussa Niang Kol moom Mame Cheikh Lo Baye bu baax a baax ni ki sëñ Samba Diouf hmm. nekk si marché Gueule Tapée waaye duñu fàtte benn yoon Euh, sëñ sëñ na Alioune Alioune Diagne. mooy hmm. Ala Diagne. Aliou waaw euh, sëñ Jili Diagne ak sëñ Maodo Ndoye Diagne Diagne jàmbaar maa Ibra Diagne duñ ko hmm. fàtte benn yoon. waaw sëñ Maodo Diagne Ablaye Diagne di jàmbaar sëñ Maodo Diagne mi fi bàyyi ko léegi. di xarit luñu Alioune Diagne te liggéey sànq baax di yaar mboolem mbokk yi rek. Hmm. ak mbokk yi nga xamante ne ñoo doon jàppale si liggéey bi. Baye Adama daal bégaat nañ. ndax lii si maam Saliou wax dëgg yàlla. Euh, mun naa wax ni bëri nañ si morom. ñoo xamante ni tey lañ koy doog a dégg. waaye nag ma sëñ Badara sëñ Badara ak sëñ Mamour maa ngi leen di ñaan nag fi mu damaa yegg ci màggat. Hmm. <laughs> waaw te ni ngeen mooy jabar jabaree bu bu doy doy waar. <laughs> du ma attan coono yi du ma attan di ki géeg dem tawul boppam képp ñuy dégg sunu kàddu daal ñu koy ñaan ñu koy ñaan mu ñaanal nga yàgg fi loolu tàndu ndax li ñu ak baaru ah dama dama dese nga lu de Cheikh nga lu de ah nga lu ah, ah dem go fenn kon da ngay garanti jërëjëf Baye garanti wér géeg wér géeg gudd fan gi jërëjëf dama go fenn ndaw dimbali ma rek sëñ Ablaye Yaxi Ndaw bu ko fàtte sama rek loolu moog sëñ Cheikh Fall Baye Góor Ndaw njabootu Baye Cheikh Ndaw gépp rek Baye Assane du ñu Ndaw sama sama gars yi cameraman yi tubarkal jërëjëf jërëjëf sëñ Aliou Badara ndeysaan soxna hmm. moom waaw ndeysaan jërëjëf sëñ moom tubarkal la jërëjëf euh, sëñ Aliou Badara tubarkal la hmm. santaat nañ bu wér wér hmm, ndeysaan tey tubarkal la waa régie est-ce sant nañ fi wér wér jërëjëf waaw way <laughs> jaajëf ndeysaan mbokki taali ba tey ñu ngi woote suuf waaye eh, képp kuy seetaan télé wala ngay diglu rajo bi rek Euh, na wax na wax na wala nga mas ko déglu na wax Baye Adama yàlla na fi yàgg te ànd ak wér waaw loolu ndigal la loo xam ne kilifaa ko joxee ci suuf waaw képp kuy seetaan a déglu rajo bi loo xam ne kilifaa ko joxee ci suuf euh, nu yàgg fi dool li fi yàgg yaa ngi fi nag Baye Adama dema koo fenn waaw kooku mag ñi lañ la mag ñi la taawul santaat nañ bër sëñ Alim Badara jërëjëf Baye Adama Sarr euh, di santaat bu baax mboolem njabootu daaru xafoor gi yëpp nag fàttewuñ Serigne Dame Fall Salihu di ko doon lay ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér mhm. waaye tamit di ziar baax a baax waa kër sëñ Modou Mame Fall mhm. waa kër sëriñ Assane Fall Awa Jaxate ñu ngi ziar baax sëñ Assane moom sëñ Modou Mame Fall di ziar baax sëñ Modou Fall waaw sëñ Modou Fall mi nga xam ne moom itam mooy xalifab Euh, sëñ Cheikh Fall yàllay bool moom sëñ mu moom sëñ moom sëñ Modou Fall Saliou di ziar bu baax mboolem njabootu maam Saliou Fall gépp di beral nuyu ak bu ziar Soxna yëpp di ziar sëñ Badara Borom nga xam ne itam gis nga kaddu yu am solo yi nga xam ne indi na ko ci jotaay bi waaye mboolem lu bokk Daaru Xafoor mm-hmm. eh, fàttiwuñ kenn waaye di ziar bu baax soxna Astou itam bokk ci njabootu maam Saliou nekk fii ci Liberté 6 comme ni ñu ko waxee ñoom ñëpp ñu ngi bàyyi xel jotaay bi mboolem lu bokk ci Daaru Xafoor sëñ Omar Bayo sëñ Abdou Sakkour sëñ Badara ñoom ñëpp di njabootuk sëñ dam fall sariw ak sëñ fallu fall mi nekk fii di ziar ñëpp nag sëñ basiru baara moom sëñ moom sëñ mohamadu bar mu mag di ziar mboolem njabootu sëñ tubaa gi yëpp nag ak njabootu maam cheikh moom sëñ basiru bar moom mana mhm. mhm. ku yebu ñaanal ko mhm. fonk na ay magam mm, yërëm na rakk yi wu jàmbur nay def te dara ñuru ko sëñ tuwag ak akuk talibé moom sëñ Bassirou Bara loolu la yàlla dogal. <laughs> man daanaa ko fekk ci këram gi ci. asalem géejawaay asalem géejawaay mhm. Mhm. waaye gëj nañoo gisee. waaye dama lay musal tuuti ci mhm. li tax doomi sëñ Touba doomam bu yëmut kenn. waaw ah, bi bi bi Balla di bëre. ak euh, Bombar. Hmm. damaa dem sama kër xam nga ponkal mu reer ba rekk moom tëdd nelaw ne mën na koo gis. rawatina séeréer. <laughs> ci guddi gi ma gis mhm. euh, Balla yëkkati bombar mhm. di ko daanee mhm. ñu doxale canal seen diggante waaw bi bi bi bi bombar janagaay jëm ci kanaal bi Balla ak janagaay jëm ci canal ñu wa ñu wangar bi bombar bi bëgg suruf ci kanaal bi sëñ bas ñu jàpp ci loxo li sànni fële ki ma woon téléphone man ne ko soo ko daanan dee ren waaye suñ baar sëñ suñ suñ bas baara sawe na ko du dee waaye day daanu waa ji bi ma ko waxee damaa mere bi ma ko ne balla day daanu ndax su daanee waa ji dee am kilifa waaye am li may wax li ma ci jublu mooy nan wut kilifa te wéeru ci moom ndax Moussa Kane ku wéeruwul yomb ba max waaw waaye bi ñu ko giddar ñee moom mu jëm ci canal bi mhm. sëñ bas baara mu ni sëkk ci mbagg bi sànni ko nëlee kon kooku nan nan wut kilifa. yàlla nañu wéeru ci yàlla nañu wéeru ci Cheikh Ibrahima. Cheikh Rafa jërëjëf. jërëjëf ah gis naa buum nga. xaar ko ma xaar ko. Ah, gisoo fii ne muñ maa ci gi. ce que tubarkalla santaat bu baax a baax njaboot jotaay bi moom tey xam naa ne <laughs> jotaay la daal jotaay la waaye di siyaar bu baax Assane Rési di siyaar bu baax a baax. waaw euh, Assane Fall Rési moom gars yi mag nañoo bu baax baax a baax. mag waaye tamit sëñ di siyaar bu baax a baax sëñ Moussa moom ngi ànd ak ñun jotaay bi. di ñaan ci barke sëñ Tuubaa Seera Fall ñu am. ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Fall waaye tamit sëñ seek Mbu moom woote na ci suuf waaw Seeka Mbu moom itam woote na ci suuf ku mel ne Birane Silla itam woote na moom it daayira mooy bu nation la bokk ñoom ñëpp nag mun xëy na liñ xataay bee tax waaye amoon nañ yéene ndeysaan tàbbi ci biir jotaay bi kon baa dama nga defal ñu ñaan amiin baag Cheikh xalqu samaawaati wala li akbar xalqi naasi walaakin aksara naasi laa ya'lamuun amiin baag Cheikh yaquudu lii kun fa yakunu haaji min fi bila xadin wala taaji yàllaaw yaa rahmaanu yaa bashiru xaadiru yaa rahim yaa yasir lawum bii li si taasraa fi kulli maa Garuda, Garuda, Garuda.